feeñoon yéen jamono ñu dem Fatima ca Portugal yéen taa ñu dem faxi na nga jéggal naa ñeel ñu zunubana suñu bàkkaat waqinaa e yow yàlla nag ñu fegal nag ñu dandal azaban naari mbugalu safara yàlla na yàlla musal ci safara bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla nee na assaabirina way muñi ñi nga xam ne lu leen dal ñu muñ ko ah yàlla nee na ñooñu day seen mbir lu ko soxla lool yàlla mooy may xol yi muñ yaa rabbi yàllaahu lu jafeñ la ni lu jafeñ la am na lu ñu dee saabir sabaar sabuur yàlla mooy sabuur nit ki tooñ nga ko jéggal ko te tee ne dana tooñaat te bu tooñaatee danga ko jéggal lu jafañ la lu jikko yi am na melakaan saabir subhaanahu wa taala sabaar lii lu gën la lool doomi aadama nga mun a muñ mun a tolore lool am na loo xam ne mun nga ko faj ci saasi waaye nga seet yàlla nga bàyyi ko yàlla it seet yàllaam gi mu jéggal la bu doon diw danaa ko def nangam a ah, yàlla yit seet comme diw boobu moo tax nga bàyyi ko te yàlla moo tax nga bàyyi ko moom yàlla mu daal la defal jàmm de nañu muñ ku muñ dana muuñ muñ muñ njëlbeenam moo gën a wex wextan moo gën a wex wextan asabru awaluhu murul mazaqatuhu lakin na axlaa min al asali am na kenn ku wax loola la nee na muñ njëlbeenam moo gën a wex ak wextan wextan mooy lool di nekk ci weti res boo rendee xar lool ngay gis mu dend ak res daal di verte nga xam ne bu tojee ci ndawal daanaka ndawal boobu lekkati ko yombul nee na muñ njëlbeenam noonu la mel waaye boo demee mujjam muñ moo gën a neex lem day dem bee li la sonnaloon lépp nangul la bëgg li la jafeñoon daal lañ kon na muñ na ngeen muñ tey muñantu tey muñalante na ngeen muñ ci seen jëmm tey muñ muñ lu ca loo nga muñ muñ lu ko te ngeen muñalante yéen neen euh, bu boobaa yàlla na leen defal jàmm waaye waa ji ndax ma xamul an koy wallaahi waa ji xam na la wa saadiqiina ña nga xam ne waaye dëggu lañu ñoom du ñu dugg ci caaxaan du ñu dugg ci mbóorante du ñu dugg ci ay xumbaare ñoom fu ñu nekk ñu ngi dëggu rek même bu ñu waxee waxu kaf boo geestoo waxu kaf ba dangay ngay fekk dëgg la de da ngay fekk dëgg la kon saadi nekk saadiq baax na de bu yowmal qiyaamatee kenn ku nekk ñëw ne yàlla dama bëgg nga fay ma sama jëf yàlla ne demal ci dëggu mu fay la demal ci dëgg mu fay la nga ñëw ci dëggu ne ko damaa bëgg a fayu damaa bëgg a fayu mu ne ko fayu loo jëfoon mu ne ko defoon naa nangam ak nangam mu ne ko ba nga koy def day man taxuma woon nit ñi ñoo taxoon demal nit ñi fay la kon dëggu baax na de doomi aadama bu dëggoo dana yegg foo xam ne njàngam yeggalu ko fa doomi aadama bu dëggoo dana yegg foo xam ne ngànnaayam yóbbu ko fa doomi aadama bu dëggoo dana aaki loo xam ne moom kenn ak doolem kese du ko mën a aaki kon nañu dëggu boo dëggoo gëm gëm yàlla gëm yonante bi gëm sa bopp wallaahi da raw say maas waaye doomi aadama bu xeebee boppam mënumaa doon nangam yegg bërëb sàngam doo yegg foofu mukk seetal am na kuñ doon tuddee euh, Indira kuñ doon tuddee Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi baadoola la woon boo ko gisee benn sër rek la doon la woddoo naka ñuy aj màkka la ñuy def mu tarax laayoo benn sër génne benn mbaggam bi yore yatam noonu la doon jógee New Delhi ca Inde ba Angleterre ba Londres ci Angleterre waaye noonu la doon ñëwee ba Cape Town ak Johannesburg fii ci Afrique di Sud lii lépp muy xeexal doomi Inde booba Indo yi ñoo gën a na xeebu Indo lan la xamoon tëgg ak fecc rek mag ñi xam nañ ko am na film mu doon tuddee ay albela ay mangala ay daara Indo moom fecc ak caaxaan rek waaye demal dem nañu tey bay tëgg ay bomb atomique xam nga lii lan moo leen ko may mooy dëggu wóolu sa bopp waaye boo dëgguwul wóolu sa bopp sa dara du sotti kon nañ nañu dëggu bu ñu xeeb suñuy bopp du dégg nañ ko kon bi maa ngi noonu le yàlla nee na wasqaanitiina ñi nga xam ne dañoo mokk pooj ñoom xas nañoo nangul yàlla seetatuñu lii dana leen jig wala leen jig ñoom téye nañ ne lépp lu yàlla waxe lu leen di jig la ñoom amatuñu xaar xool dara gëstootuñ dara yàlla bëggee danaa def ni Seydina Muhammad bëggee xaanitiina ñoo xam ne dañoo mokk rumbax dañoo mokk pooj dañoo col-coli bàyyi lépp lu dul yàlla wal munfiqiina ñi nga xam ne dañoo yore te li leen li ñu yor xam nañ ne du seen ngóor a moo leen ko may waaye kële nga xam ne amul xam nañ ne du doye dem moo ko xañ am na loo def ba am am na ku def fukkam te amu ko kon anakal moo la may ku dul yàlla subhaanahu wa taala ba ngay ñëw àddina wëñ moo gën a tuuti andiwaale woo ko dangaa juddu daanu ñu for la raxas la sang la daal la laxasee ay morso daal di def xel bu neex ci yoon nit ñu musul mënu laa jot bañ daawoo gis ñu tàmbale yàlla may la nga gis buñ jëlee ramp lamp bi di la romb ngay xool ndànk naag ñu ne eh tàmbale naa gis bu dara yëngoo nga nga tiit nga gësamu ñu naa tàmbale naa dégg seetal fan la yàlla jàll ak doomi aadama kon bu la yàlla joxee ay ay ay téeméer na nga def jëfu téeméer bu la yàlla mayee ay junni na nga def jëfu ay junni bu la yàlla mayee million na nga def ay jëfu million bu la yàlla maye jëfu milliard na nga def jëfu milliard bu leen xeeb am na looy xeeb am na ku ne ngéej daal di jot loolale wal munfiqiina ngeen di dimbale eh, di joxe ngeen di dimbalante di joxante am na doomi aadama yoo xam ne seen dund yëpp du ñu jéem a nekk joxekat waaye seen dund yëpp dañuy dañuy tàllal seen loxo rek tàllal di yent yàlla Muhammad nee na yadul ulya xayru min sufla loxo bi nekk ci kaw di joxe moo gën fopp loxo lii dafa war a yëngu ne foog damay def waaye déedéet man damay toog na yàcc ñu defal ma ah, déedéet déedéet nañ di nañ di góorgóorlu am na ci léebu mag ñi ñu ne benn benn till yéen a ngi dégg benn till till mooy xaji àll dafa toog ne yàcc rek yaayam na ko tee ngaa jóg nga rëb bi ah mu ne yaay rëbb daf may sonnal nekk di dàqanteeg njaay àll yi mu ne damay toog rek gaynde yaa ngi fi ci àll yi bu ñu fàddee ba lekk bu ñu demee ma ñëw lekk la fa nekk la fa des rek mu ne doom doo fa fekk res de ah te wax na dëgg res ba gaynde gi fàdd moo koy lekkal boppam mu ne ko doo fa fekk res de te it da nga mar tufli keneen de dégg nañ kàddu gi mu ne ko doo fa fekk res ndax ki ko fàdd moo koy lekk mu ne da nga fa mar tuflitu jàmbur ndax moom ki fàdd lekk na ba doy le ah, waaw lu des la ah, lii lépp njàngale la boroom xam-xam danañ ko doon def di waxloo ay mala fekk liñ ci jublu mooy jàngal seeni xeet dong waaw nee na wal wal mustafina ña nga xam ne dañuy sàkkoo jéggalu bil ashaari ca cuuyaay cuuy ya cuuyaay cuuy mooy jamono ji nga xamee ne nitu yàlla yi ci la ñuy jóg mooy sabab ganaar bu njëkk ñuy jóg di def salaatu tahajjud yàlla nañ ko yàlla gën a dëgëral yaa bi waxtu boobale benn rakkaam ëpp na ëpp na ay téeméeru rakka nit ñëpp tëdd ñu ngi xaran ñu ngi sàngoo seeni mbàjjo taal seeni climatiseur den ak jongoma boo xam ne eh, xool ko foog nga sëggaat ngir taaram nga daal di sànni jongoma boobale sànni mu sedd boobale daal di tënku yàlla bi ne allah akbar xam nga ne maqaama yooyu la maqaama yu rëy rëy la kon nañ ko bàyyi xel tëddaay tëddaay yi bàmmeel moo gën a yàgg suñu kër yi dañ ko génn suñu lal yi dañ koy wàcce suñu jëkkër yi dañ leen fi bàyyi mu takk keneen di ko jabaroo waaye suñu jabar yi dañ ko fi bàyyi beneen góor jël ko di ko jabaroo jigéen ñi tamit jigéen seen jëkkër dañ leen fi bàyyi keneen di leen jëkkëroo kon balaa bés boobu jot balaa ñu lay waajal nga waajalal sa bopp balaa ñu lay jullee nga julli waxtu yàlla yi balaa ñu lay yóbbu ca jàkka ja ngay dem ci jàkka ja yal na yàlla dimbale ñu waxtu yooyu la képp ku koy nelaw aa ah, doo bokk ci góor yàlla yi de inna chata layla lu mu ci teg yachat wataan wallahi mi ngi noonu de waaw sahaaba yi xamuñoon nelaw sahaaba yi daaw ñu yandoor saxaaba yi fu ñu nekkoon ñu ngi jëfal yàlla moo tax amul benn saxaaba bu dee déedéet boo usmaan Ousmane turandoom yaa ngi nii boo ne Ali turandoom yaa ngi nii boo ne Ousmane turandoom yaa ngi ni boo ne Omar turandoom yaa ngi ni moo tax ñeddee ñoom bokkuñ ca ba tey nit ñaa ngi naan yow yàlla ci barkey sa jaam diw sa jaam diw kon lii xeetu maqaama yooyu la nañ ko xeeñtu shahidallahu annahu laa malaikatu wa ulil ilmi qaa'imun bil qisti laa ilaaha illaa huwal aziizul hakiim shahida allah shahida bi bul ko firee seede de déedéet shahida allah yàlla pekkeew na gis nga làkk arab boo ne woon shahdu mooy xëbuti lem lem booy dindi lem lii génn te du ànd ak kaañeeri ndoxi lem moom la ñu tuddee shahd mooy mooy li ñu tuddee xëbu lem waaye seede boo ne shahida rek kon du shahada am na shahida am na shahuda am na moo tax làkk bi làkk bu jafeñ la la ca nekk nekkul ci làkk yi seetal boo demee ci tubaab yi boo jàng français am na lu ñuy tuddee singulier ah, mooy mufrat mooy mufrat benn mbir boo am na lu ñuy tuddee pluriel mooy jam u mbooloo am na lu ñu tuddee duel mooy musanna mooy ñaar waaye arab moo am ñaar waaye français amul ñaar arab da ngay ne huma da ngay ne anta wala da ngay mufrat eh, wala nga ne antuma mu dikkee la tasniya nga ne antum mu dikkee la jamu wala nga ne huwa huma hum français nag da ngay ne rek vous euh, yéen wala nga andi deux ne ko vous deux yéen ñaar la wax waaye duel làkk français làkk yi dañ ko bind waaye mu feeñ ci du yomb moo tax yàlla def lakk bi muy lakk yaaram mu def ko muy làkk seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy làkk waa aljana it ci lañ wàccee alquran Eh, mu doon juróom benn té juróom benn junni aaya eh, juróom benn téeméeri aaya ak juróom benn fukki aaya ak juróom benn dundagum na junni at ak ñeenti téeméeri at lu teg ci kaw suuf si téere yéle yépp raaf na injil bu dëggu amatul zabur bu dëggu amatul tawraata bu dëggu amatul alquran rek moo fi nekk saalihun li kulli makaanin wa li kulli zamaanin yàlla nañ ko yàlla déggal yaa rabbi njaboot gi yàlla nañ ko mokkal te buñ ko mokkale lañ yàlla nañ ko yàlla ko jëfee moo ta shahida allahu bul firi ne shahida seede na nel shahida pekkeew na shahida wër ndombo shahida aakimoona allahu yàlla annahu luy mbir tey mbir laa ilaha illa laa nekkul ci lu wey nekkul woon laa nekkul fii ñu toll laa nekkul ci liy dikk de ilaha borom boo xam ne jaamu ko dana jur njëriñ ñàkk koo jaamu di jur lor amul illaa hoo budul moom yàlla euh, téeméer la ak ak ak benn euh, maa ngi fàttaleeku booba maa ngi fare ndaw lool jumaa Tuubaa bi ba mu pare yàlla dogal ku baax ki euh, di sëñ Fàllu yàlla na yàlla taas ci barkeem yàlla yokk leeram dafa ñëw foofu ci dakaar mu seet Sërif Moulay Hassan radiallahu taala anhu ah mu ne ko liggéey yàlla ga mot na de sëñ Moulay Hassan ne ko alhamdulilah waaye ca yoon ngoogale sama jur ci la bokkoon Chérif Moulay Hassan ah, daal di dem man ci laa bokkoon booba maa ngi fare ndaw lool ndax wayjur bi dafa yéex a am njaboot moo tax ba mu amee njaboot it mu bëggoon njaboot lool daawul dem bërëb mu bàyyi ma gannaaw waaye eh, allah akbar jumaa ji bañ ca duggee jumaa ji mi ngi taaru mi ngi jekk mu ngi yaa mi ngi yaatu muy jumaa Tuubaa am na benn piil bu nekk ci kaw buñ ko taalee dafa am lu muy taal ci biir jàkka ji nga xam ne tàkk na ca kaw waaye moom ba mu ñëwee mu daan na Cheikh Moulay ñu daal di dàmbale seen ñaari loxo yi di maamu sëñ bi bañ ko ci tegee mu daal di tàkk mu daal ne làmp faal foo xam ne ci ay maqaama ci ay daraja ak xam ak yëg waxinam nit kese di waxee noonu du yomb dafa ne mu daal làmp faal a ngoog làmp faal xam nga faal téeméer la ak fukk ak benn ndax faa juróom-ñett fukk la alif bi ko xacc benn la muy juróom-ñett fukk ak benn laam ba fanweer la fanweer bu fekk jee juróom-ñett fukk ak benn mu daal doon téeméer ak fukk ak benn aw fekk mooy laa ilaha illa waaye fekk mooy xutb waaye mooy faalit ndax Cheikh Ibra Fall baabul muridin ku ku liggéeyal sëñ Tuubaa mujj goo xam ne lépp lu ko waroon dafa doon dégg li mu wax wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi loolu la yàlla wax ah amul dara ba dara booloo jeex bu dul mi ngi tudd yàlla boo téyee jën bi sax mi ngi naan laa ilaha illallah muhammad rasulullah boo koy togg it mi ngi sabbal yàlla xam nga yàlla bu defuloon suñu kiiraay ak diggante loolu ak fan la fan la ñuy lekkee da nga dem da nga dem àll ba jël xeer bu nga setal sa bopp nga dégg mu naan laa ilaha illallah muhammad rasulullah ndax kooku da nga ko laalal sobe doo ko laalal sobe da nga dem jël paaka di rendi gàtt nga dégg gàtt baa ngi naan laa ilaha illallah muhammad rasulullah ndax kooku da ko rendi doo ko rendi da nga koy bàyyi lii moo taxoon Cheikh Ibra Fall dafa mujjoon lépp loo xam ne mi ngi wax di ko wër chein ilaa yu sabi bihamdihi waa ku baax ki moo def lu rëy ci moom lu rëy loo xam ne yéeme na kon dégg nañ solo si waaye nag wa maa yaaqiluha ñi yàlla may maqaama dëgg-dëgg ñooy xelu lii ñuy bëgg wax waaye amul dara téere bii nga tiim mu ngi tudd yàlla waaye néeg bi la tiim mi ngi tudd yàlla ventilateur yi lépp mi ngi tudd yàlla bu yàlla dindee hijaab sa digganteeg loola la jeex na sa yaram sax ni mu tuddee yàlla da nga koy dégg moo tax civil ak militaire ñu benn moo tax koo xam ne maftuux alayhi la du mën a tolloog mahjub koo xam ne dañ koy yiir sama ah, toll rek lay toll waaye boobu maftuux alayhi day dégg lu bëree bëri kon yàlla na yàlla def loolu yaa rabbi wal ak illaa illaa huwa kon faal moo mooy tolloog xutbu waaye mooy tolloog na wal malaayikatu malaayika yi naka noonu ñépp seede nañu nangu nañu yàlla gi yàlla gi ulul elmi bo topp borom xam-xam yi du borom xam-xam yëpp de am na koo xam ne xam-xamam def koo sànk waaye borom xam-xam boo xam ne xaa iman aji taxaw la bil xis di ci jub kocc rek du jeng ndeyjoor du jéng càmmuñ waaye de dafay kocc rek bil xis ci kocc rek a xam ne laa ilaha illa al aziz yàlla mooy ki të kenn mënul ci moom dara al aziz yàlla mooy ku tedd ku mu teral nga tedd ku mu tedd dil kenn mënu laa teralati yàlla na yàlla may teraanga yaa bi al hakim yàlla mooy aji xereñ nu mu dogalee noonu la moom yàlla nu mu defee noonu la yàlla du juum yàlla du jaawal du jaawalante waaye mbokk yi mun gan de ci li gan bëgg de du loolu la wolof wax mun gan ci li gan bëgg xam nga ki nga xam ne dafa jóge Dakar daal la gane ci misaal wala mu jóge Paris gane si la yow nga dem togg aw ci nga dem defar aw caakiri du xam ngeen caakiri wala nga defar fonne daal di ci soppi daal di ci sotti soowu mbaani boo ko joxee boo jëlee ñaari koog rek dafay daal di bàyyi ndax biir bi attanu ko xamu ko judduwu ca yaruwu ca du dafay jéem a fonk fonklu waaye natiiram moo ko xamul waaye koo xam ne dafa jóge fii ci kaw gi dem Paris wala mu dem lu mel ni Londres eh, ñu jël seen kii tubaab yooyu lu ñu de ay champion du ngeen champion mooy loolu ngeen tuddee palosoor yi mbott te muy génn ci biir nawet am na yuy génn ci dàtt garab bu wow loolu tubaab yi dañ koy lekk champion boo ko defalee loolu def ci ay salaat daal saaf ko teg ko ci wetam du ko xool sax dafay wocc ndax judduwu ca xamu ko lii nag moom moo am moo tax wolof naan mën gan ci li gan bëgg boo bëggee teral gan defal ko li bëgg li mu bëgg ne naa jaamu yàlla bul jaamu yàlla ci bidaa déedéet bul jaamu yàlla ci sa sagoy bopp bul jaamu yàlla ci ni nga ko gisee déedéet waaye na nga ko jaamu ca nam ko ca nam ko waxee te diine bi yàlla tànn ci diine yi tey jii benn dong la mbokk yi mooy al islaam gisoo diina bu ñëw rek ki ko andi woon lañ ko tuddee diina bu ñëw ki ko andi woon lañ ko tuddee almasihiya almasihu isa ibnu mariam kon risaalaam dafa gàttoon gis nga boo demee ci biir Europe ñu ngi topp isa waaye bokkuñ ci risaalaam boo demee Amérique ñu ngi am na ñu topp ci Isa waaye bokkuñ ci risaalaam boo ñëwee ci Afrique danga gis ay katolik gis ay orthodoxe di gis ay protestant waaye bokkuñ ci woote Isa Isa ñi mu doon woo moo yaa bani Israil yéen a ngi koy fàttaleeku inni rasulullahi man yonentu yàlla laa bu jëm ci yéen kon li ngay gis ni ñu ne Vatican Isa musta yegg Vatican de déedéet yenn jamono ñu dem fu ñu de Lourdes ca France ne Mariama def fa feeñoon yenn jamono ñu dem Fatima ca Portugal yenn temps ñu dem Vatican ci Rome fi pape bi nekk waaye yonte al Isa yeggul ci béréb yooyu alayhi salaatu wassalaam kon ngeen bàyyi xel ci loolu yooni Isa ci bani Israel la yemoon ndax ba muy woote ñooñu la wax yaa bani Israil waaye Muhammad rek moo wax yaa ayyuhan seetlu ngeen kàddu googale wala yaa ayyuhal lazina amanu yaa ayyuhan naasu bàyyiwul benn xeet buy turka buy hawsa buy muusi eh, buy buy joola buy njaago eh, buy manoojo eh, buy bonay kereyol xeet gu nekk ci kaw suuf tey ngay nit wala ngay jinne muhammad sa yonante la ndax moom muhammad rek moo waxoon yaa yoon naasu waaye yonante yi ko jiitu woon yaa qawmi lañ doon wax nuuhu yaa qawmi la waxoon yonte yàlla huut yaa qawmi la waxoon yonte yàlla luut ya yaa qawmi la waxoon yonte yàlla saalix yaa qawmi lañ waxoon waa yonte yàlla isaa ak yonent yàlla Moussa ñoom ñëpp yaa bani Israël la ñu waxoon waaye waaye ki ñëw Muhammad ana fan nga gis ci alquran ñu ne yaa arab alquran bi mu jeex doo dégg yaa arab wala nga dégg Muhammad na yaa qawmi déelu yaa ayyuhan naas ey yéen doomi aadama yi kon bàyyiwul kenn bàyyiwul ñu nekk Asie bàyyiwul ñu nekk Amérique di Nord wala Amérique di Sud bàyyiwul ñu nekk Asie bàyyiwul ñu nekk Océanie bàyyiwul ñu nekk Afrique ñépp la yàlla yónni ci ñoom seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax diina gi nga xam ne moom la yàlla reconnaître ci diina yi nee nañu mooy islaam inna diina naka diina bi nga xam ne moom la yàlla accepté yéen a koy dégg ngeen jéggal ma ci baati tubaab yi dafa am ñu fi nekk tubaab la ñu dégg moo tax dégguñu yeneen làkk-làkk bu leer moo tax yenn jamono ma xaw a kii tuuti ngir ñoom tam nañu dégg ngir ñooñu ñi fi jàng tubaab bu ñu leen xeeb déedéet seetal ku baax ki di imaam Hassan Cissé yal na yàlla yëkkati maqaamaam aljana yi gën a kawe yal na ko dëkkee yaa rabbi njaboot gi mu fi bàyyi yal na yàlla dolli leen ak teraanga imaam Hassan làkk boo waxoon dafa lay daal di tontu dafa doon bind ci làkk yi dafa doon wax ci làkk yi seetal imaam Hassan li mu bi mu ci ay tukkeem yu mujj benn bés lu ëpp ay junni junni doomi aadama ñoom ñëpp tuub nañu benn bés bi daal di jël tariqa ci loxoom anglais la koy wax buñ ko see anglais lay wax ak ñoom kon bu yéen it na ngeen doon ay xasan mbëtt nag du feesal paxu jasit dégg ngeen wolof bi mbëtt mun te feesal paxu jasit waaye na ca dugg rek ñu xam ne dugg na ci biir mel ni moom yombul waaye jéem la mu doon def nag lu jàppandi la yéen ñi jàng tubaab li ngeen xam ci alquran na ngeen ko toxal ci làkk tubaab nasaraan yi dégg ko ngir dugg ci diina islaam ngeen musal ay bakkan ci safara waaye na ngeen doon ñoo xam ne da ngeen di défendre ay cause l'islaam euh, làkk yi na ngeen ko jàng ni ngeen jàngee arab ba mun ko maa ngi leen di jéebaan na ngeen jànge noonu français waaye na ngeen jànge noonu anglais espagnol noonu portugais noonu chinois noonu chinois bind gi moo jafeñ waaye làkk bi jafeñul làkk bi jafeñul làkk bu yomb yomb la dafa gàtt lool seetal boo ne hiihaw hiihaw def hii teg ci xama bu fekkee ñu ne la a siira wala ci wolof jàmm nga fanaan waa kii boo ne hii xaw jeex na neen ko jàmm nga fanaan xam nga li lu yomb la lakk bi lu yomb bind bi nag moom moo jafeñ moom jafeñ ne kon mbir maa ngi noonu la inna diina naka diina day indallaay fi yàlla al islaamu moo di lislaam wa maxtalafa wuuteewul allazina ña nga xam ne utul kitaaba joxef na leen téere a illaa ndara min baadi maa gannaaw ba nga xamee ne jaahumu dikkee na leen al ilmu xam-xam doomi aadama yi dañuy dem ba am preuve ci mbir xam ne lii day lii la nii la mel ba pare ñu daal di wut ñuy diingat ñuy dàggasante ñuy téesante ci ay baatu yàlla waaw illaa ndara min ba adima gannaaw ba nga xamee ne jaam dikkee ne la al ilmu xam-xam lii lépp baryan ngir ga fuuy baryan ngir ga beew xam ngeen ngir ga ñàkk a xam rek bay nam seen diggante am na ñoo xam ne jàng nañ jàng bu dëgg waaye ñu dégg dara lu jëm ci yàlla wa man yakfur képp ku weddi bi ayaati rabbillahi ci aaya yàlla yi fa inna allah naka yàlla day sariul gaaw ci regle la baatu sariu ci turi yàlla yi la bokk sariu euh, boo amee aajo goo xam ne yàkkamti nga ko lool bu la nga def ko ci junni yàlla dina gaawal aajo googu mooy yaa sariu waaye nga nag laa ilaha illallah yaa sariu laa ilaha illallah yaa sariu euh, ci ci lay ci lay ci lay gën a ci lay gën a gaawee ndax baatu laa ilaha illallah moom bomb la dafay tàkk rek waaw moom dafay xëcc rek bopp terrain la dafay xëcc rek luñ ci lonk rek mu daal ko yóbbu fa in fa in haajuuka ndeem nit ñi dàgge sante ak yow bu fekkee ñu ngi diingatante ak yow bu fekkee ñu ngi téesante ak yow naan yow Muhammad na sa diina gi fa qul neel aslamtu man de jébbal naa wajhiya sama jëmm ji lillaa ñeel borom bi subhaanahu wa man aw ma bëgg-bëgg bu dul yàlla bëgg aw ma bañ-bañ bu dul yàlla bañ man yàlla rek mooy mooy ki fa man itabaani mm, ak képp ku ma topp de fa qul waxal na ñeel ña nga xam ne utul kitaaba joxeef na leen téere te mooy yahudi mooy nasraani wal ummiyiina ak ñi nga xam ne feru ñu ijj te mooy arab yi nga xam ne ñoom xamuñoon mbind jaay jënd rek la ñu xam di jàpp ay jaamak ak façon yooyu rek ku mun sa morom duma wax leen aslamtum moo ndax euh, tuub day yellul ci yéen nag ngeen bàyyi yi ngeen di def xaccoo yi di damu man man man man man géer laa man xeeti buur laa man yax bu rëy laa é demal ci bàmmeel ya nag ndax da nga ne yetu buur yaxi buur bi ak baadoole bi boo demee ci sëg yi kii tëgg la kii géwél la kii lawbe la doo ko xam ne ci bàmmeel yi de lépp benn la kon yii suñuy aada la bàyyi ko nag yii yàlla na jeex tàkk ñu xam ne benn bi rek moo fi nekk kullukum min aadama wa aadama min turaabin kon mbir maa ngi noonu la yàlla nee na fa in aslamu bu ñu jébbaloo fa in aslamu bu ñu tuubee fa in aslamu bu ñu nangoo faqat ci dëgg-dëgg de ihtadaw ñooñu gindeeku nañ bu boobaa wa in tawallaw bu ñu ne waqeet joxe gannaaw waa bul xeex ak ñoom bul dàgg ak ñoom nit ku baax déedéet du delloo lu bon ci lu bon fa in tawallaw ndéem nee nañu waqeet joxe gannaaw fa innama alayka déet di la war bu dul albalaaku jotal rek na nga jotal bul xuloo bul xeex bul ŋaayoo bul dogoo wallaahu yàlla day basiirun yàlla njàccaar la basiirun yàlla aji gis la bil ibaadi ci jaamam yi amul kenn koo xam ne ci jaam yi yàlla gisu la yàlla ràññewu la amul kenn ku yàlla réere mbiram inna lazina naka ña nga xam ne inna lazina ñaaña inna lazina naka ña nga xam ne yakfuru na ñu ngay weddi bi ayatillah aaya yàlla yi bu yàlla na ñuul nañu ne dafa tik bu yàlla na weex na ñu ne dafa ñuul bu yàlla na dafa xàll ñu ne dafa xonk bu yàlla na dafa nett dafa nett ñu ne dafa baxa baxa mooy bulo ci wolof waaw ña nga xam ne inna lazina ñooy ñaa ña nga xam ne eh, naka ña nga xam ne yàgg fa ne dañuy weddi bi ayat la ci ay aya yàlla yi nga xar baaxu yàlla yi tegtalu yàlla yi wa yàqtu la ñuy rey ina yonant yi ah, lii de yaatu na lool bu leen fàtte ne ñoom yahudi ñoom ñoo reyoon yonant yàlla zakariya waaye ñoom ñoo reyoon yonent yàlla Yahya waaye ñoom ñoo yoon yonent yàlla Shaya waaye de ñoom ñoore ñoo reyoon yonent yàlla eh, Daniel waaye ba léegi ñu ngi rey de waa ku ñu gis ngay woote dëgg-dëgg diina ñu fexel la ku ñu gis ngay ngay ngay ngay woote dëgg-dëgg diina ñu xam ne ëllëg lii ngay woote bu siiwee ah fi ñu fi ñu jëm ak fi nga jëm du benn daañ la tàmbali di fexel même boo xam ne sax lii dafa doon sunna yi ci biir dund gi boo demee ba doon doomi aadama boo xam ne bañkat nga dangaa bëgg sa xeet na tekki dangaa bëgg sa askan nañu jëriñoo dangaa bëgg ngeen raw rek ñu daal la boom seetal ci Afrique fii am na ku ñu doon tuddee Patrice Lumumba yéen ñu jàng tubaab yéen a ngi koy fàttaliku ca kongo ca Congo Kinshasa ñaari Congo moo am Congo Brazzaville ak Congo Kinshasa moom bañkat la woon lii réewam rek la gëmoon mu ngi doon liggéey liggéey goo xam ne ci Afrique ah bu sotti woon Afrique yabeelam ca wàll googu dana deñ waaye dañ ko rey moom Patrice Lumumba ana kanati seet leen Samora Michel ki nekkoon président bu Mozambique nga xam ne moom da ngay foog ne kii yàlla def ko bind ngir ree rek waaw ku rafetoon sikkim la waaye ku bëggoon Afrique la ku bëggoon der bu ñuul la ku doon xeex ngir Afrique am ngor la waaye seetal moom it dañ ko rey moom Samora Michel waaye barki Dembo Njaay kii ñu dee Thomas Sankara ni mu toppatoo réewam ak lim xalaat yu rafet yi mu andi woon foofale nan la mujj dañ koo boom lii du dañ mu képp koo xam ne yaa ngi jëm ci defar yaa ngi bëgg doone woy musse yaa ngi bëgg doxal diinay Seydina Muhammad bi wala nga bëgg sa askan wala nga bëgg sa xeet yaa ngi liggéey yaa ngi kër këri xamal na yaa ngi ci problème waaye nag am yàlla yàllaa gën ñàkk yàlla yàllaa gën te yàlla na yàlla may yàlla yaa rabbi yaay seydina muhammad sallallahu alayhi fu ñu toll wa yaqtulu na ñu ngay rey annabi nag benn dëgg de neexu leen rek ñu daal di ko rey wa yaqtulu na ñuy rey wa yaqtulu na ñuy rey allazina ña nga xam ne ya'muruna dañuy digle bil qisti ci jub kocc seetal seydina omar dañ ko rey waaye seetal seydina ousmane dañ ko rey waaye seetal seydina aliyu dañ ko rey seydina alxasan dañ ko rey seydina alxuseyn dañ ko rey ah baatu rey googu nag ngeen jéggal ma damay wax mu leer ndax fi ma toog nii li ma wër xeet bu nekk mi ngi ci te bëgg naa ngeen dégg lu leer kon dégg nañ ko yàlla moo waxoon dee afa in maata aw xuti la yàlla dee la waxoon kon boo ko waxee it du ñàkkatee gindi afa in la an ma afa in maata aw xuti la in xalabtum ala aqaabikum kon mbir maa ngi noonu le eh, ya am eh, wayatu na ñu ngay rey allazi na ña nga xam ne ya amoon dañuy digle bil xisti ci njub seetal omarul muxtaar benn nitu yàlla la woon bu nekkoon libi bëggul woon dara li mu laajoon nañ leen bàyyi ñu am seen indépendance nañ leen bàyyi ñu ubbi ay daara jàng al alquran xeex naag ñoom nangami at te màgget la woon waaye kër bañ ko jàppee buum lañ def ci baat bi daal di ko aj ba mu dee moom Omarul Muxtaar noonu lañ ko def Samori Touré Samori Touré xaadir la woon cheikh la woon ku ñu seexaloon la waaye sa lan la def tuumaal nañ ko yàq histoire am ne dafa doon xotti biiru jigéen ñi di seen nan la doom tëddee Samori Touré dana war a def la wallahi deful loolu boo demee ci téere bu ñu tee daawatul xaq ñu ngi naan xaadir la woon mu ngi toppoon Cheikh Abdou Qadir Jeylaani xaddasallahu sirahu dafa doon wut indépendance bu Afrique waaye nu mu jàngalee diinaam ñu daal di ko jàpp yóbbu ko ca dëkk bu ñu dee njole njole benn dëkk la ca Gabon sorantewul lool ak Maayombe fi nga xam ne fa la xaadimu rasul nekkoon yal na yàlla taas ci barkeem kon ñoom képp ku ñu gis nga nekk ci njub rek ñu daal la sàkkal pere waaye amuro na ñu ngay digle bil eh, wa yaxtu la ñu ngay rey na ña nga xam ne ya amuro na ñu ngay digle bil xis di ci ci kocc ci baax ci njub min min naas ci doomi aadama yi fa bashirum na nga bégal bi azabin mbugal mi ngi leen di xaar alimin mbugal bu metti ulaayka ñooñu allazina mooy ña nga xam ne habitat màbb na amaalum seen jëf fi duniyaa ci àddina gi wal axira ak àllaaxira de seen mujj dana ñaaw ci àddina gi lépp lu ñu dajale woon di alal balaa ñuy dee yàlla wàcce leen feebar ñuy faju rek ba xaalis ba jeex dangaa jëloon alal gu la leewul nga teg ko ci banque bi balaa ngay dee yàlla teg la benn ba benn feebar da nga dem Amérique doo wér da nga dem Australie doo wér yaa ngi paas ci avion yi rek balaa ngay dee xaalis ba jeex tàkk comme ci fala-fala nga ko amoon yàlla teg la loo xam ne fala-fala moo koy yóbbu nit ñi dañoo foog ne boo defee lu bon rek yàlla dafa lay rey ci saasi kon mu yomb te neex di wulaayka ñooñu allazina mooy ña nga xam ne habitat màbb na amalum seen jëf ci dunya ci àddina gi moonte wal axira ak alaxira wa maa lahum déet di leen ñeel min naasiri na ci waaye dimbale kenn du leen dimbale alam tara ndax gisoo yahudi bu fee atte la bu ñu ubbee seen téere ba mu doon lu neex ah ñu ne nañu yem fii suñu téere gi daal li mu wax atte googu mën nañ ko dékku bu dee dafa wax nag loo xam ne lu diis la ñu ne ah nañu seeti Muhammad bu fekkee alquranam nga li mu wax ci lii lu neex lu yomb la ah ñu daal di topp téeram ba seetal lii yow li nga yore bu la waxee lu yomb nga def ko bu la waxee lu jafeñ nga ne nañu dem ci waajee moom bosam bu waxee lu yomb ñu jël bu waxee lu jafeñ ñu bu ñu bàyyi ndeke booba ku njaalo ci yahudi seen diina ñoom ci seen bopp jigéen bu njaaloo te dégg alxayru góor daal di njaaloo te dégg alxayru dañ leen a war a mu sànni leen xeer ba ñu dee ñaar ci ay kilifa yahud ku góor ak ku jigéen daal di njaalo ñu dem ci seen téere ba xooli ñu fekk ñu ne euh, azaniyatu azaniyatu wa zani euh, aji njaalo gu góor ak aji njaalo gu jigéen bu fekkee dañoo sangew xam ngeen sangew ci wolof mooy mus nañoo dégg alxayru na ngeen leen jam nangeen leen jam ba ñu dee ñu naa lii day diis na kilifa gii nañ dem seeti Muhammad ñu fa demee Muhammad ne leen sama téere gi day koo xam ne dafa njaalo te musta am jëkkër koo xam ne dafa njaalo te musta am jabar kenn ku nekk dañ dañ koy kàcciri eh, téeméeru karwaas waaye bu fekkee ne dafa dégg alxayru tey góor dafa dégg alxayru tey jigéen nañ ko raj mu mooy nañ ko jàmbe mu dee ñu daal ne ah, Muhammad daal diin am gi diina gu jafe mooy liñ fekk fële rek lii moo doon seen mbir moo te yàlla na alam tara moo ndax gisoo ilal lazina jëm ci ña nga xam ne utoo joxeef na leen nasiban cër minal kitaabi ci téereb yàlla gi jàng nañu ba jàng ba daal di fëtt lool yud aw na euh, dees na leen woo ilal ilaa kitaabillahi jëm ci téere yàlla gi bu ñu leen wooyee li yaxkuma ngir nga atte baynam seen diggante ñi nga xam ne yud aw na dees na leen woo ilaa kitaab jëm ci téere yàlla gi te mooy alquran li yaxkuma ngir na na ate moom Muhammad baynum seen diggante su ma topp bu ñu déggee lu leen naqadi yatawalla daal di daal di daal di ne waqeet fariqun aw sett minum ca ñoom dem yoonam te waxum ñoom day muridu na ñuy waay dëm mooyu ndax la mu leen wax neexu leen zalika loolu le mooy bi annahum naka ñoom xaalu ñu ngay naan lan tamassana naaru déet safara di ñu laal illaa ayyaaman dara ay fan ma adudan fan yu ñu lim fan yooyu nga xam ne moom la ñu jaamoon estati bi ba Moussa demee wuyu ji yàlla ca tuuri Siniin ah, fan yooyu dong lañu bu ñu naree dugg safara du passé ñeen fukki fan yooyu la loolu la ñuy wax yàlla nee na waqarahum nax na leen waqarahum wuruj na leen wor na leen fii diinim seen diina maa la nga xam ne kaanu nekkoon na yaftoor na doon ko duur la nga xam ne dañ ko doon kàcc di ko fo di ko fent ci ay fen ci yàlla fa kayfa kaawteef fa kayfa naka isa ja isa ja isa ndeem dajale nañ leen li yow min ñeel bés ba nga xam ne laaray ba déet sikki sàkka déet déng dengi déet xel ñaar fii bu ñu demee yowmal xiyaamati la nga doon weddi yëpp yaa ngi nii gis ko aljanaa ngi nii sa ndeyjoor safaraa ngi nii sa càmmoñ jinne yaa ngi nii malayka yaa ngi nii njuuma yaa ngi nii kiyaafi yaa ngi nii ndegment yaa ngi nii kondorong yaa ngi nii la nga doon dégg naan du dëgg yëpp ñu ngi nii sa kanam bu keroogee wowu fiet daal di lëwaleef daal di rembatal kullu nafsin bakkan bu nekk daal di ko dikkee maa kasabat la mu fàgg woon foofu la ñuy encaissé de àllaaxira al dana na adduniya daarul amal la daarul jaza wal axiratu daarul jaza laa daarul amal tey da ngay liggéey doo fayeeku yowmal qiyaama na da ngay fayeeku liggéey amatul foofale waxum naka ñoom laa yuzlamuuna deefu leen tooñ aaya bi mi ngi noonu leen nañ nañ ko bàyyi xel qul allahumma maalikal mulki tuutil mulka man tashaa wa tanzil mulka man tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tuzillu man tashaa biyadikal xayru innaka alaa kulli shay'in aaya boobu aaya la goo xam ne yéeme na lool eh, na ngeen ko bàyyi xel gaa yi xaccoo ci àddina gi waa boo ko ah, boo ko ñaanee ngir borom yàlla dina ko may ak pal de yàlla dina ko may ak pal waaye dafa am ak defin eh, comme mbooloo la ñu bàyyi ci xel rek taalibu bu ko yelloo rek ñu daal ko ko wax waaye ngeen ànd ak sago nag am na ñoo xam ne politiciens yi politicien dafa mel ni ku otom paan rek boo rombee borom oto bu paan poussé ba mu tàkk rek bu dee ko baax la moo yëkkati loxoom merci wéy na du la yóbbaale de wala mu du wax merci sax dafay taale daal di continuer politicien noonu la mel boo ko poussé pousse ko ba mu yegg fa mu jëm nga bëgg audience gis ko doo ko gis de wala buy campagne bu ñëwee boo tànkee ndox mu naan ko waaye bu génnee yee eh, mu jël ay saabu ak nangam raxas loxoom balaa sa microbe daal di ko topp moo tax jaruñu dara na nga topp yàlla topp Seydina Muhammad mi dul xeewi ñi fi nekk yépp di ay ay président ay député ay ministre nekkuñu fi woon député nekkuñu woon ay ministre nekkuñu woon ay président wallahi alladi laa ilaha illa huwa maa ngi koy maa ngi koy waat ci yàlla mi wàccee weeru koor bi ñu toog ay bés yu ñu néew mi ngi ñëw ci kanam ñii dootuñu nekk président dootuñu nekk ministre dootuñu nekk député kenn du leen tuddati fañ doon ñëw ñu ubbil leen buñ ñëwee dañuy ñaan ndigal soog a dugg moo tax na ngeen ànd ak sago ci seen mbir boo jaayee sa diina ngir ñoom bu ëllëgee da ngay perte de seen dërëm yi na ngeen ko bàyyi euh, seen pal yooyu ñu leen di fal dañu leen di tardel yàq seen jamono rek xaar leen palu bu yàlla yàlla ku mu fal dootoo fa lekkooti mok xul waxal allahuma e, e yow yàlla allahuma nag yaa allahu la woon maalikal mulki yow yàlla yaa moo yaay aji moom nguur yàlla mooy ki yarambu nguur yàlla mooy fale yàlla mooy folli yàlla mooy yéegal yàlla mooy wàccee yàlla mooy rawle yàlla mooy daaneel tuutil mulka yow yàlla de yaay jox nguur man tashaa ku la soob ci jaami yàlla na yàlla may nguuru diina yaa rabbi yàlla na yàlla may nguuru diina yaa rabbi wa tanzi yow yàlla yaay rocci yaay folli yaay wàccee yaay daaneel yaay soofloo yaay jëlee al mulka nguur mi man tashaa jëlee ci ku la soob rasuuli bés yu tuuti ñu daal di ko wàccee ñi tàccuwoon ba mu yéeg ñoo ko tàccuwaat ba mu daanu rek waaw alal gi mu dencoon ñeneen daal di ko aakimoo watu zil watu izo yàlla yaay teral yaay màggal yaay réel yaay ngandal manta tashaaw ku la soob ba ñëpp seen ko ci kaw watu zil yow yàlla yaay tuutil yaay xeeb yaay xeebal yaay doyadil yaay néewal yaay toroxal man tashaaw ku la soob bi yeddi ka nekk na ci sa moomeel bul firi yeddi ka sa loxo yàlla amul loxo waxiin la waxaatibi naasa bi xadi uqulihim na nga wax ak ni ñu lu tolloog seen dégg moo tax yàlla ne bi yedika bi yedika ci sa moomeel la nekk alxayru yiw yaa yore teraanga yi yaa yore alal yi e innaka naka yow yàlla day qadirun yaay aji dogal ala kulli shay'in ci mboole mbir tuliji layla yow yàlla yaay roof guddi fi nahaari ci bëccëg guddi daal di gudd lool bëccëg daal di gàtt tuliji nahaara yaay yaay roof bëccëg fi layli ci guddi guddi daal di gàtt lool daal di gudd lii nag xam nga 24 heures moo am 24 heures fukki waxtoog ñaar di bëccëg fukki waxtoog ñaar di guddi yenn jamono guddi dana guddi di gudd ba doon fukki waxtu ak juróom bëccëg doon juróom-ñeenti waxtu rek da ngay tëdd ci ci ñuy tëdd nelaw yandoor yaa ngi xasanu yaa ngi xaran ba sonn bët du set da nga jóg génn ubbi palanteer bi seet mu ngi lëndëm rek mooy fan yooyu ci biir at nga gis guddi tamit bëccëg commencé di lekk di lekk di lekk ba doon fukki waxtu ak juróom guddi doon juróom ñeenti waxtu rek dangay tëdd rek ak bët set rek muy benn góor gi jógal yow lay ne la ba léegi damaa biddante biddanti woo guddi moo gàtt yàlla borom bi subhaanahu wa taala yooyu ay definam la am na réew yoo xam ne dangay dem ba xaaji guddi te yaa ngi gis jant bi dem ba minuit ci guddi fekk yaa ngi gis jant bi am na ñuy def ay weer ci guddi rek lañuy nekk li ay mbiru yàlla la watuxëjël hayya minal mayiti ci ku yées yaay génne ku yiw ci ku yiwadi ah, mag ñi nag am na nuñ ko doon firee yaay génne nit ku dund ci maniw goo xam ne ah, amul yëg-yëgu nit kuy dund di dox wala yaay génne ganaar guy yëngu ci biir nen goo xam ne ci zaahiram dafa wow bete yëpp dem na yow yàlla yaay génne ah, ndox mu neex ci ndox mu ci ci mbiix wa tuxrijul mayyita minal hayyi yaay génne ndox mu naqadi ci mu neex yaay génne ndox mu neex ci bu naqadi loolu nan lañ koy déggee jëlal cin nga jël cin cin ah nga teg ko ci kaw safara nga sotti ci ndox nga tàngal ko bu tàngee ba tàng euh, da ngay boo ubbee ni da gis am na saxat bu yéex bu yéeg moom la arab di bu xaarul tubaab di ko tuddee vapeur wala du vapeur dafay yéeg di yéeg ba taqaloog niir bi waaw bu nawetee mu wàcc doon naan ndox yow yàlla yaay génnee yaay génnee ndox ndox mu naqadi bi ci ndox mu neex bi boo taxawee ci géej doo gis wale wàlla géej gi itam dafay évaporé wu géej gi dafay yéeg bu yéegee ba ci kaw mu wàccaat moo tax am na jamono ñu ne asamaan si dafa taw ay jën ahankay am na ñu koy weddi lu am la du asamaan si moo taw ay jën de eh, évaporation bi eh, bu bu géej gi di évaporé wu di yéeg ne am dafa am xeetu jën yoo xam ne seen nen dafa oyof ba doj ji duñu leen mën a téye dañuy yéeg ànd ak vapor googale bu ñu nekkee ci kaw nag dee du leen fa mën a jot ngir climat bi dafay favorable ak ñoom ndax ci lañ judd buy wàcc na mu wàccat ak yooyu nga gis ay jën di daanu yooyu ñu foog ne ci asamaan si la jóge yàlla moo tawal jën ci géej gi la jóge daal di yéeg na ngeen bàyyi xel ci loolu yàlla mooy génnee ndoxi asamaan si ndox géej gii di mbeex waaye mooy génnee ndoxi mbeex mi di xet ndox moo weex ci kaw ba yàlla bindee pare na yàlla bindatul kullu yawmin huwa fi sha'anin sha'anun yubdihi laa sha'anun yunshihi yàlla yàlla fay leen kon bi maa ngi noonu le yow yàlla yaay wërsëgal mënta caaw ku la soob bi xëy hisaabin te doo natt sax danga koy sottil rek am na ñoo xam ne tey jël milliard mayee ko dafa mel ni jël benn ñu jël cinq francs mayee ko am na koo xam ne tey fukki dërëmam bii mu yore boo ci bëggoon a génnee dërëm <laughs> andi nga fitna de andi nga am na ñoo xam ne ay millions la ñuy maye ay milliards la ñuy maye ah, mbiru yàlla la may na kii lu bëree bëri ba ñëpp di ko yéem mu lii lu bëree bëri ba di ko yërëm kon fi maa ngi naan yàlla yàlla may ñu lu ñu jaamoo yàlla laa laa yetta réseau jaaduwul muy muy téye almu'mina na waaye gëmi alkaafi na yéefiri awliyaa ñuy ndend de déedéet min duni mu'minina ne ñukk julli di walis julli déedéet jullit mun na lii catholique mun na lii léegi bul tegg jullit bi nga koy joxi catholique bi de déedéet xanaa bu fekkee danga cee namm istimaa la mooy boo ko jegeñee di ko defal teraanga yooyu xolam dana jàpp diina mu di la jegeñ lii nag lislaam na la ko may waaye bu dul loolu koo xam ne du jullit nga téye ko taf ko sa bopp daal di soral jullit bi waaw loolu lislaam bëgg ko lislaam bëgg ko laa yattaxisu bu mu jàpp al mu'minuna waaye gëm ñi alkaafina yéeféer yi awliyaa ay ndenn min du nil mu'minuna walis jullit yi loolu jaaduwul jigéeni jullit a ngi nii jigéeni kéeféer mi ngi nii te boo kéeféer bi mënoo ko jeng loo mukk bàyyi ko ak lu mu rafet nga jël jullit bi ñaaw waaye nag boo xam ne boo ko jëlee dana tuub jël ko ngir nga musal bakkan ci safara waa man yafal daal képp ku def loole le fa lay sa déet mina laaj ca fa yàlla fi cheyn euh, muy am benn cër ca yàlla de illaa la lu anta taqu ngeen def ko ngir nga moytu ca ñoom tuqaatan ak moytu rek euh, anta taqu ngeen mun a fegu minhum ca ñoom tuqaatan ak fegu nga xam ne lii bu ngeen ko defee dana tax ngeen mucc ci seen musiba ñoo nga ci dëkk nga def fa sa entreprise ñoo fa ëpp ah secrétariat bi jullit mun na ko kéeféer mun na ko nga jël kéeféer teg ko foofale ngir ñu am wóolute ci yow bàyyi la nga wéyal sa liggéey yu mel noonu moytu moo tax ngay def loolu wa yaxasirukumullah yàlla mi ngi leen di moytu loolu naf sa boppam ah wal masir mujj waayu ilallah jëm na ci yàlla de xul waxal intur foo bu ngeen feeñ bu ngeen nëbbee maa fi sudukum li seen xol yàlla réeréew ko de waaju romb la ak otoom nga daal ne arat ara yóbbaale ma waa ji taxawul nga ne yàlla na ponam sekkeeku oto bi daanu am nga bàkkaatu ku sekki ponay oto nga waa ji romb la ak sareetam nga ne góor gi dama ma yóbbul nga ne dëgg-dëgg ah, de dama fees mu ne yàlla na balankaar bi damm sareet bi taxaw am nga bàkkaatu ku damm balankaar na ngeen bàyyi xel in xul eh, waxal in tux fu bu ngeen bu ngeen nëbbee maa fi sudurikum leen xol yi aw tudd wala ngeen feeñal ko ya'lamullaa yàlla day ko ko xam la de ca démb ci tey ca ëllëg maadi fi'lu ak mudaariw eh, ak mustaqbal lépp benn la ci yàlla wa yàlla mu yàlla xam ne te dina wéy di xam maa fi sama li ci asamaani juróom-ñaar wala maa fi ak li ci suuf si wallaahu yàlla xadirun aji attan la ala kulli shay'in ci mboole mbir yow ma bés a ngi dikk tajidu dana fekk kullu nafsin bel bakkan bu nekk maa amilat la mu jëfoon la mu jëfoon min xarin ci yiw bés a ngi dikk kenn ku nekk la nga jëfoon da nga ko fekk yowmal xiyaamati de buy lu baax yaag moom buy daral mooy lu ñu teewal wa ma amelut ak la mu jëfoon min suyin ci lu ñaaw danga gis doomi aadama xool ndey jooram lu baaxam mi ngi nii mu xool càmmoñam lu bonam mi ngi nii te ndeysaan mënul rëcc fokk mu gàddu la mu defoon rek nga gis moom nit ki tawaddu dana ngéeju tawaddu dana bëgg tawaddu dana sopp law cey an na bu saxoon bay nahaa digganteem wa bay nahu ak digganteem lu ñaaw loolu amadan aw digaaloo ba idan bu sori cey bu ko li a sori wa yuhadhirukumullah yàlla mi ngi leen di moytandikoloo allah yàlla nafsoo boppam jëmmam ja wallahi yàlla raufun aji ñeewent la bil ibaadi ci jaami aaya boobu di ñëw na ngeen bàyyi ci xel bu baax ñii naan topp nit daganul naan topp nit daganul am sëriñ daganul lu tax daganul aaya boobu mi ngi noonu la na ngeen ci bàyyi xel kom ne yow jël nga tariqay tijaan yaa ngi topp diw sàngam wala jël nga tariqal qaadiriya yaa ngi topp diw sàngam wala yaa ngi jël tariqa muridiya yaa ngi topp diw sàngam wala saazali nga jël wala naqsa bandi nga jël aaya baa ngoog de dagal na de ñii naan bidaa la ñoom kay ñooy dund ci bidaa te ñoom ci seen bopp dafa am ku ñu topp Muhammad ibnu Abdul Wahab du moom lañ topp wahabi yi moom lañ topp Arabie saoudite daanaka lépp moom la topp kon bu ñu jubee ni suñu sëriñ si topp leen dafa araam te ñoom kooku lañu topp di Muhammad ibnu Abdul Wahab mbokk yi doy na waar lool moo tax yàlla ne xul na ngeen ci bàyyi xel di aaya bi dégg ci loolu dafa jafeñ ñu bëri boo leen laaje dañu ne wabtaru ilayhil wasila ñu ne wasila mooy wiir wird bi mu la jox waaye moom du sa wasila waaye aaya baa ngi ni buy wane na jëmm nit ki moom ngay topp nga yegg ci yàlla xul waxal in kuntum dem nekk ngeen tuhibuna laa di bëgg yàlla bu fekkee yéen yàlla moo leen suuxal bu fekkee yàlla ngeen sopp bu fekkee yàlla ngeen bëgg bu fekkee yàlla mooy ki leen jógloo bu fekkee yàlla mooy ki leen ñor fattabi'u na ngeen ma topp man muhammad sallallahu alayhi wasallam dégguñu aayu na ngeen ma topp man muhammad bu fekkee ci yàlla ngeen jëm bu fekkee yàlla ngeen bëgg bu fekkee yàlla moo leen suuxal bu fekkee yàlla ngeen di topp newul julli leen woor leen de dafa ne fattabi'u na ngeen ma topp man muhammad waaw ba muhammad demee ana ñan ñoo ko wuutu boroom xam-xam yi al ulamaau lu mu ci teg warasatul anbiya yonante yi ñoo eh, boroom xam-xam ñoo wuutu yonante yi comme yonente neen bu ngeen buggee yegg ci yàlla man ngeen di topp ma yeggal leen ci yàlla te yonente bi ci zaahir nekkatul kon ki ko fi nekkal di wax li mu doon wax di tere li mu doon tere di digle li mu doon digle kooku la ñu war a topp kon leer na in kuntum dem nekk ngeen na laa di bëgg yàlla euh, di sa di sàlloo yàlla bëgg a jëm ci yàlla bëgg a bokk ci kuréelu yàlla gi bi fattabi'uuni na ngeen ma topp man Muhammad bu ko defee yuhibbukum ngeen am yàlla ngeen defee bu boobaa leen yàlla bëgg leen kawel leen jox leen cër te du yem foofu de wa yaxfir koom dafa leen di jéggal zunubakum seen bàkkaar yi wallaahi yàlla de rafoon jéggalaa kon la rahimul yërëmaa kon la am na benn waaye bu ñëw ci ku baax ki di Mawlaana Cheikh Abdul Qaadir Jeylaani ne ko dama la dégg nga yeggale góor ñi ci yàlla ma fekk si la ci àll gii nag ngir ma fekk si la ci àll bi ngir eh, nga nga nga xamal ma yàlla mu ne ko waa baax na toogal waa ji toog mu ne ko wàll gii ma nekk tey laa jeexal si damay toxu jëm wàllaa géej géej mu ngi nii dama war a toxu jóge ci àll bi jëm ci jëm ci jëm ci àll gëla ñu ngi toog rek ba mu tàmbalee guddi waa ji ne ko ah cheikh bi laa jilaani man di li ma dégg baa tam gaynde la de mu ne ko ahankay ma ne dégg naa ko ni nga ko déggee mu ne ko gaynde xam nga dafay fàdde mu ne ko ahankay ki bind gaynde moo ñu bind lu mu nomm ci ñun bu ñu nekkoon ci biir kër gi gaynde gi fa la ñuy fekk kon gaynde gi du dara bu lu yàlla la du jeexital bu dul yàlla ànd ca waa ji ne tekk toog léeg-léeg ñu seen gaynde gu romb nii bu gersoo seen sang bi ni mu daal di nokki ngelawam daal di wéy ah mu ne ko góor gi mu ngi bëgg a guddi de te man gisuma gaal de mu ne ko waxtu bi bu jotee rek dinañ jéggi géej gi ba waxtu bi jotee mu ne ko jógal ñu dem mu ne ko ana gaal bi mu ne ko du man maa la jógloo mu ne ko waaw yaa ma jógloo mu ne ko nañ dem ci géej gi ba ñëwee ci géej gi moom Cheikh Abdou Qadir Jeylaani mu teg tànkam ci géej gi ne bisimilah rahmaani rahim ne waa ji waxal ne bismi Cheikh Abdul Qadir Jilani waa ji daal ne bismi Cheikh Abdul Qadir Jilani ñuy dox ci kaw ndox mi ñu dem ba ci digg géej gi waaji daal di téye ci xelam man maa ñàkk ful la moom mën a ay tudd yàlla man mën a bismi Jilaani ba mu ko waxee mu daal di surux wàcc ci biir géej mu téye loxoom ne ko tuubal ci li nga wax man fi ma toll ba mun a wax bisimilah yow ngay soog a tàmbale yow mën nga wax loola moo tax nit kese euh, subhanallah la mu ñemee ak nit ku tollu ci yàlla seen maqaama du benn seeta baatu bisimillahi kii jéggi géej ah, kii ndeke bisimillahi moom sellul sell goo xam ne yàlla dina bëgg a déglu baatam yàlla na yàlla dimbale ñu da nga gis dara tamit mu xew mu jaaxal nit ñi kii ñaan ci saasi ñaan gi daal di am kii ñaan be sonn ñaan gi amul te kii moo gën a sell kii yàlla buggul dégg baatu kii maa ngi jégal du yow laay joxoñ de damay wax damay wax rek ana ni ah, ah, ko xaalakaatan way noonu <laughs> waaye bul foog na yooyu lay wax alaan ah, so so haala ina joofa a sikka tan ko ano haalal kono wona ande ko haala ka way noon tan jaafoda da gis doomi aadama da gis doomi aadama sant yàlla ñi ñu ay taalibe yu ndaw la ñu woon fan kontaan lool démb ñoo ngi doon jàngal a ah, ba ja da duñ ko mokkal tey ñoom ñoo téye kaamil ubbi ko wër la xam nga lii sant yàlla yem la doy na bu yàlla jël jëlee bakkan bi sax wallahi dara nekku ci doomu aadama moo dul doylu rek naa dund bay doxee yat naa bañ may génnee di ma weer waaye nit ñi bu ñu xamee fi nga jëm am nga ngërmaande yàlla lan moo ci des seeta ñoom ñëpp ñu ngi ubbi te démb kenn mënta bind turi boppam lii sant yàlla la may leeral boo gis da nga gis doomi aadama boo xam ne setul sellul waaye bu ñaanee yàlla ci saa si mu am nga ci doomi xam ne set na sell na waaye bu ñaanee yàlla mbir mi du teel am kële dafa tilim ba yàlla bëggul dégg baatam bu na yaa rabbi yàlla jox ko ngir mu noppi ndax bëggul dégg gémmiñam gu tilim góogale yaramam bu sell di góogale baatam di ci génn fekk na kële dafa bëgg dégg baatu kookale muy génn ci làmmiñam bu sell ba ak yaramam bu yiw ba yaa rabbi yi muy wax yàlla dafa ciy bëgg malayka yi dañ ciy bëgg mboolem ruuxu yonent yi dañ ciy bëgg bu demee nag ba yàlla xam na ne mi ngi bëgg a sonn yàlla daal di ko defal teraanga ku xamul na nga na man de jaaxle na diw bi ak alquraanam gi moom daal ceebam jeex na ca weer ba léegi amul sànkila de waaye waa ji daal moom ci bistoron yi lay yendu waaye moom bu benn saako di jeex benn saako ñëw fekk yàlla dafa bëggul déggul kookale ngeen bàyyi xel ci maqaama yooyu la yàlla nañ ko yàlla déggal yaa bi lu mu teg kon aaya baa ngoog ñii naan wasilat amul ñàkk am sëriñ baaxul de déedéet ñàkk am sëriñ baaxul ñàkk am kilifay diine baaxul dem ba tëdd buntu jàkk ñu ne mooy sëriñam balaa la de balaa la de moo tax seet leen ku sell ngeen seet ku yiw ngeen seet ku baax ngeen dénk ko seen bopp mu jébbal ay tur yàlla ngay jaamu ni muy jaamoo bu ëllëgee boo nekkatul mu sang la bu ëllëgee boo nekkatul mu sàng la bu ëllëgee boo tëddee sa kaw balankaar mu tiim la jullee la jiitu la ci sa biir bàmmeel ñaanal la dékku la daal la tëral waaye nii rek diw laa bëgg rek yem ci déedéet buñ la joxee wirdu sax bu faatoo te mu bàyyi fa doom wala ki mu fa wuutu demal beesal de demal nga jaayanteeg moom waaye buñ la joxee wirdu kooku faatu na demoo nga beesal ca fa mu bawoo woon déedéet kese la de kese la de na ngeen ci bàyyi xel lool yàlla yàlla dimbaleen yaa rabbi yàlla nee na qul ati ullaha topp leen yàlla wa rasula ngeen déggal seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa la bu ngeen ne waqeet fa inna allaha naka yàlla laa yuhibu yàlla du bëgg yàlla du yool yàlla du jàmmal mukk alkaafina waay weddi inna allaha naka yàlla day istafaa yàlla tànnoon na aadama yàlla tànnoon na aadama wa nuuhan ak nuux aadama nag dañuy foog ne fukki junni at yi paase la wala wala ñaar fukki junni at paase la mbokk yi aadama yàgg na de aadama am na benn gàmm may déglu ma dégg benn sëriñ muy konte maamu Seydina Muhammad ba yegg ci aadama man sama bopp dama gàccew ndax li mu wax amul déedéet ñooñu diggante yooyu laa yaalamuha illa allah am na benn téere mi ngi ko bind diw moo jur diw diw moo jur diw ba mu jur Muhammad ñuy jur be Ibrahim ñuy jur be aadama déedéet gisoo bu yàggul ci at yi ñi nga xam ne ñoom ñooy gas suuf si di def ay recherche am na benn nit bu ñu fekk ci réewu caat ci boori awsu yooyu dem na ba nekk doc waaye bañ ko génnee ba teg ko carbone 14 fekk nañ dund na ay million ngi at million ngi at yi passé woon moom la dundoon gisoo am na xeet bu ñu doon dundee bu ñu doon tuddee sangool les sangool ñu ngi dëkkoon fii ndukkumaan ci boori Kaffrine gisoo seen bàmmeel yi foo mel ni ay gën ay kuur yu bëri nit ñi yàq nañ ko yi ñu sàcc ko li fa nekk bëreetul waaye xeet googu fukki junni at yi passé la nekkoon Sénégal fii waaye amatuñu amatul benn xeet bu ñu tuddee les sàngool kon dañoo foog ne àddina bi junni at la wala fukki junni at la wala benn million ngi at la eh, mbokk yi àddina bi yàgg na de aadama du tey de aadama lu yàgg yàgg la aadama lu yàgg yàgg la kon na ngeen ko bàyyi xel lool kon dégg nañ ko yàlla tànnoon na aadama eh, wa nuuhan mu tànn nuux am na yonent yu bëri dikk diggante nuux ak ak aadama nuux turam dëgg-dëgg ñaari tuuri la abdul shakur ak abdul eh, abdul abdul rafaar dafa mel ni suñu mbokk pël yi dañuy faral di am ñaari tur lii du du tey de lu yàgg la de innahu kaana abdan shakuran abdu abdu shakur benn turam mooy abdu shakur benn turam mooy abdul ghaffar yaay bi tuddee nii yaa baay bi tuddee nii ba léegi ñi ko dese ci suñu réew yi mooy suñ mbokk pël yi araamul de lu baax la lu dagan la dara nekku ci de nuux turam dëgg-dëgg mooy noonu waaye li mu doon jooy jooy bu jéggi dayoo ci aski ci bàkkaatu xeetam ñu tuddee ko nuux nuux mooy mooy jooy bay yëkk am na ñu ne déedéet dafa gis benn xaj goo xam ne dafa gaana mu xool ko xool ko ne eh yàlla it de moo yéeme nekk xaj dong doy na waaye ba ci boole ngaana li de musiba la nee na yàlla daal loo xaj gi ne ko bu buñ doon jaay eh, nekk mbindeef nit laay doon ni yow buñ doon jaay feebar kon lu ma ko jënd damay wér ni yow nee nañ naqar goog na diiru dundam mu koy jooy rek kon bu ngeen gisee téere yi bind loolu it moo tax ma nettaliwaale ko rek wa ala ibrahima ak ñoñ yonte yàlla ibrahim ibrahim turam dëgg-dëgg mooy abu rahim bàyyi yonte yàlla ibrahim mi ngi bokkoon ci kildaani yun yi ci réewu iraq fa la fekk baax am na xel gu ñu tudde al kildaani yun ci kuusha ci réew moom la juddoo moom yonte yàlla ibrahim dafa gàddaay tey ji mi ngi tëdd ci dëkk bu ñu tuddee Hébron wala madiinatu xalil ci ci Palestine fa la tëdd tey moom yonte yàlla ibrahim waaye doomam di ismail ak soxnaam di haajara ñoom ñu ngi tëdd màkka yàlla mayoon na ko juróom-ñetti doom yu góor kon wa ala imran ak ala ibrahim wa ala imran ak ñooñ imran imran imran gii nag mooy euh, papay papay yaay mariama imran la tudd waaye papay euh, euh, papay yonent yàlla muusa moom tam imran la tudd seen tur moo daja moo daja rek waaye du benn bi de yàlla moo tànn ñooñ alal aalami na ci seen nitu jamono zuriyatan muy muy njoboot ba aduha lennam min ba liñ jóge ci lenn de nit ñu baax ñoom ñoom ñoo bokk de nit ñu baax ñi ñoom ñoo bokk boo gisee ku bon seen biir rek eh, dafa ci peelu si waaye du bokk ci de nitu yàlla yi seen askan yëpp boo seetee dafay dafay doon benn maa ngi lay jox benn misaal bu gàtt seetal Cheikh Omar Fouti yàlla na yàlla taas ci barkeem eh, nitu yàlla la woon ku liggéeyal yàlla la li ma ci yéem ci Cheikh Omar Fouti bëri na lool waaye bokk na ci dafa am dëkk bu nekkoon ci weti dingiraay ci gi nekkoon Guinée Conakry képp ku ko song daanu nga kenn mënu fa dugal diina képp ku ko song daanu nga waaye ba mu dugalee diina foofale am benn ci taalibeem andil ko satala na ko sëñ bi dafa mel ni waxtu julli jot na de am satalaa ngi ni ngi nga jàpp ñu julli mu ne ko ah, man keroog bële maa ngi ànd ak njàpp gi ma njàppoon ci dëkk sàngam xam nga lii yéeme na ay fan nga nekk koog benn njàpp xam nga ne nelawoo xam nga ne lekkoo xam nga ne naanoo njàpp 24 heures sa ku koy demee mbokk yi lii néew na de kon ki nit ku baax la woon nit yàlla la woon yàlla na yàlla taas barkeem moom bind na ay téere yu bari bokk na ci téereem yi mu bind mooy rimaax rimaax la ñu wëralee téere bu abul abbas ahmed bun mohammed alsalimi tijaani di cheikh abdul qadir di kii ahmed tidiane sharif téereem boobu ñu tuddee jawahirul maani téere bi ko wër ñu ko tuddee rimaax téere Cheikh Omar Fouti la waaye seetal moom Cheikh Omar Fouti dafa jël Mariam Bello ca dëkk bu ñu ca réew mu ñu tuddee Sokoto te Mariam Bello googale seet la ci Ousmane Danfodé te Ousmane Danfodé maam la ci man mi waaye Mariam Bello googale moom moo ko jural Mohamed Nour Mohamed Nour ñëw ba Mali daal di jël jigéen goo xam ne kaado la astaghfirullah atawadi siyaadoo de be ani ani bamanan gɛrɛlen no ɲɔgɔn na mɛ bamananw tɛ fit ka ca ay ye kaa dɔ tɛ u ka olu ka mankan ka n'i ba kɛlɛ kɛ a b'a fɔ ka n'i da sin ka so la a kagɔlɔ <laughs> sant yàlla yàlla na yàlla fay leen li bu leen ko xeeb ay tiyaaba yu rëy la moom Mohamed Nour yàlla dogal mu jël jigéen boo xam ne ci xeet ku ñu tudde Aysatu Kamisogo ñooñu Kamisogo seen sant la Aysatu Kamisogo la tudd moom Mohamed Nour moo jël Aysatu Kamisogo te moom Mohamed Nour yaayam ci xeetu Awsa la bokk moom ay sutu kamisogo boobu la daal di meññ Seydou Nour taal mooy Seydou Nour Tall kële nitu yàlla gi tëdd fii ci dakaar fii ci wetu corniche bi kon gis nga nit askan yi ni ñuy duggante kële yaay ji ci xeetu Awsa la kële yaay ji ci xeeti kagolo la kële nangam ak nangam rek nii la nitu yàlla yi mel dégg nañ kàddu gi lii dafay xew ci biir askan dafay xew ci biir askan yi yàlla na yàlla dimbale ñu jaay sallallahu alayhi wa sallam boo seetee ki ñu de gaage shérif am na dëkk bu nekk fi gaage shérif gaage moodi gaage bookar gaage shérif moom ak shérif shérif mu lay xasan haydara di maamu sëñ bi ak cheikh fantama di haydara boo seetee ñii ñëpp gañe benn góor gi lañu waa ñii wàcc nañu fële doon ay soose ñii wàcc fële doon ay bambara ñii wël soppeeku doon ay pël ñii soppeeku doon ay hawsa zuriyatun baaduha min baadin na ngeen bàyyi xel ci loolu moo tax booy wut soxna demal wut ko ci kër gu rëy jigéen dafay jur ay càmmeñam boo gisoo tiwaawoon ah, kilifa gu tedd gi fa nekk gisoo seen wayjur ay xaal pulaar lañ wayjur yi góor yi waaye seen wayjur yi jigéen sët lañu ci buur ko mëndoo feen juuf boole nañu ak nekk ak cëriñ ak nekk ak buur yaxi buur mi ngi daw ci ñoom waaye dere yaxu sëriñ mi ngi daw ci ñoom waaye yaxi buur mi ngi daw ci ñoom te buur am na lu muy jomb sëriñ am na lu muy bañ moo tax nga dajeeg jigéen yaa ma neex rek neex naa la rek ana seen kër suñu kër mooy fële nga dem rek nga dugg ci seen yu dëgër yooyu ñëw diwlaa seet si <laughs> boo moytuwul li ngay jëli doo ko xam mukk kon booy wut soxna da koy wut ci kër yoo xam ne kër yu ñu yaakaar la bu ëllëgee jigéen dafay jur ay càmmiñam mu juraale la njaboot gu tekki njaboot gu baax yàlla na yàlla def loolu yaa bi sayyidina sallallahu alayhi wa sallam zuriyatun zuriyatan xeet la ba aduha lennam min ba adin ci lenn la ñaari dafa wér mun ngaa ne zuriyatun waaye mun ngaa ne zuriyatan de moo ta may baatale ngir bu ngeen ko gisee feneen njàngin dafa bari am na ay wars am na riwayatul hafz am na ay qaaluun nag yooyu wallaahu yàlla day samiun aji déggaakoon la alimun aji xamaakoon la eh, mariama mi ngi noona le eh, kii kon imraana mi ngi noona le imraana moo yore woon baytil maqdis di néegu yàlla bi fa nekk di masjidul aqsa moo ko doon toppatoo moo ko doon bale moo ko doon bale moo doon duy ndaaya gan bu fa ñëw moo la doon dalal moom moo doon jiite ndeysaan ba mu demee na ba màgget awa amul doom awa ba mu màggetee lool ba jéggi dayoo soxnaam ne ko ah man de dama jël weer mu ne ko da nga jël weer mu ne ko amul ah, mu ne loolu de kéemtaan la mu daal di jàkkaarloog euh, penku seen penku ba ne yow yàlla sama soxna si kii mu ëmb de bu ko wasinee man jébbal naa ko jàkka ji soxlaw ma dara ci moom bu ma dundatul na ma wuutul li ma doon def ci jàkka ji na wéy di ko def ah, waaye xanaa mu yaakaar ne góor lay doon si ndax góor moo gën a mun loola la ndeke yàlla jigéen la koy def si pour wane ne nit ji góor di liggéey lee ba yegg ci yàlla jigéen ñi dana liggéey noonu ba yegg ci yàlla de moo tax is fàttalekul xaalat ba waxee imraatu imraan soxnay imraana góogale mu ne rab rabbi eyoo sama boroom inni man mi dey nasartu nisar naa la ka ñeel la maa fi bat nii lii ci sama biir nisar naa jox la ko bu doom bi juddoo soxlaw ma fóotam soxlaw ma baleem soxlaw ma rootam soxlaw ma toggam lépp jox naa ko baytul maqdis mu xaraan waaw muy muy muy ku ñu dañal ci lépp lu dul yàlla rek muy koo xam ne dañ ko may liberté waaw dañ dañ dañ ko tonnil mboolem coonoy kër waaw daal di ko jébbale jàkka ja mu xaral muy ko ñu tonnil ay jëfu àddinaam bàyyee ko yàlla rek fa taqabbal yow yàlla na nga nangu min nii ci man naka na ko yow yàlla na ko yow borom bi antal anta samiu yaay aji déggaakoon nga al alim yaay aji xamaakoon nga lisaan balaa muy wasin mu jëkkër ji daal di faatu li yërëm lu na lool lu rëy la ci jigéen ëmb ba nekk ci diggante ki la waroon di wéttali ki la waroon di bànneexal boo nekk ci biir métit kooku jiitu la àllaaxira li nga ëmb xamoo noo koy wasinee lii lu yëram lu la lool moo tax am na jigéen yu ko yàlla teg yàlla na yàlla may leen xoli muñ yaa rabbi ba loolu amee mu sippee doom bi sippi ci wolof mooy ba mu ko wasinee ah, mu fekk doom bi muy jigéen li baay ba bëggoon mooy góor waaye doom ba doom na jigéen ah ci la waxee rabbi ee eh, yow sama boroom inni naka man eh, wada atuha sippi naa sox sippi naa sama doom ji wasin naa doom ji ah, waaye nag unsa fekk naa muy jigéen de allahu yàlla aalamu xamam daw raw yàlla xam na bi ma wada ca la mu ca la mu sippi ba nga ëmbee keroog yàlla xam na la nga ëmb lan la ndax moo ko fa def kon jarul bu juddoo nga koy wax lan la waaye nag doom bi ni muy toll ci maqaama doom bi ni muy tollu ci martaba doom bi ni muy tolloo ci jaamu yàlla ah góor ñi sax duñu mën a toll foofu de waaw ah, wala sa zakaru kal unsa déet bépp góor mën a mel ni bi jigéen nag kon dégg nañ ko waaw ah, jigéen gi fa muy toll du mën a mel neen góor ñi duñ fa toll moom mariama jigéen la waaye dem na ba gis jibril ak bëtam te mariama du aw yonant mariama dem na ba gis jibril danañ ko gis danañ ko jàng ca kanam wala danañ ko jàng fii mu gën a leer ci sooratu ah, kaaha yaa insa di sooratu mariama waaye yemul foofale moom Maryama am na leneen yeneen ak yeneen yunu yu ko yàlla defal dem na ba takk maqam bi ñu tuddee siddiqiya siddiqiya jigéen na ngeen bàyyi xel da ngeen fekk góor eh, ni boo duggee armée ni armée mel noonu la wali yi mel danga dugg armée nga nekk première classe nekk deuxième classe nekk caporal nekk caporal chef nekk sergent nekk sergent chef nekk adjudant nekk adjudant chef dem ba nekk adjudant major walla fala la officier yu ndaw yi jeexee nga soog a dugg ci officier yu mag yi nag jëm ay lieutenant naag ay sous na naag jéem ci ay euh, capitaine nag jéem ci ay commandant ay colonel ak ba ay général bi ay maréchal yi danay am maréchal ni mu mel ci biir waliw yi général ni mu mel ci biir militaire yi bu noonu la mel ci biir waliw yi boo takkee xutbaaniya rek day mel ni armée nga doon général mbokk yi lii neex na wax ci gémmiñ waaye yegg foofu yombul de boo nekkee nag maréchal maréchal moo gën a foor général kooku nag yaa ngi moom lañu dee rawzu rawzul anaam rawzu moo nekk ci plafond bi bu dee jigéen la du takk qutbaaniya waaye siddiqiya lañ koy jox wa mariama ibnata imran allati ahsana farjaha fa nafarna fi min ruhina wa saddaqat yéena ngi fàttaleeku loola la wa sadaqat siddiqiya moom mariama eh, jigéenu jamono moo njëkk a takk loola le boo paasee rawsu nag am na yeneen martaba mooy jaamiul fard am na fardul jaamia am na ñu ko takk seen mbarka yàlla na sottee ko suñ kaw yaa rabbi jaay seydina muhammad afrique nag moom neex na leen saa su nekk rek nga gis ko jël ay sagar teg ci loosam tuddee boppam maréchal fekk yeggu fa ci njàng yeggu fa ci liggéey lu mel ni mobotu maréchal mobotu demoon na bi tuddee boppam maréchal dem na ba soppi ay turi boppam mu ngi tuddoon Jean Jean Joseph Désiré Mobutu mu ne day leelu ci diine yu njëkk yi mu tuddee boppam Mobutu Sese Seko Kukuku Wazabanga Kukuku Wazabanga mooy benn ganaar bi war a sab rek moom la waaye beneen ganaar sab na la fekk du moom général tam amoon na général bu ma fàttewul Siak Ba wala yu niroog ki nekkoon ki nekkoon Somalie waaye général bi nga xam ne Afrique amoon na ko mooy général te généralu liggéey moo ko jox moo doon Abu Ghazal mooy bi nekkoon Égypte kooku moom dafa xeex ba yàlla jox ko loola la waaye suñu général yi nekk ci Afrique moom yàlla yàlla yërëm leen rek incha allah kon mbir maa ngi noonu la lu mu teg ah, wa inni naka man sàmmaytu a ah, tuddee naa ko Mariama tuddee naa ko soxna Mariama moom la ñuy dagg ñi ne Marie eh, Mariama laa ko tuddee koo xam ne du toggooti li mukk du njaalo du du njaalo du mbaraan xam ngeen mbaraan mbaraan mooy ku sol dàllam di wundeel ci mbedd yi ngir gis ku ko kobos wala moo gis ku mu kobos rek góor mooy kobose jigéen dañ koy kobos kuy dox na nga xam ne loolu rek moo ko suuxal loolu la ñu tuddee mbaraan mariama mooy ku dul mbaraan mariama mooy ku dul tool gu toggoo tilim mu ne tuddee naa ko mariama wa ini naka man u isa ah, maa ngi koy muslu bi ka ci yow yow yàlla wa zuriyate ak njaboot gi mu nar a jur mu ne cheytaani rajim ngeen bàyyi aaya boobale xel bu doom juddoo muy jigéen nga njëkk ñu ne la ah sa jabar dee wasin na mu ngi hôpital boo demee foofale wala mu ngi ca kër ga génn na ci wanag bi mu ngi nii toog boo tiimee doom bi na nga njëkk a jàng lii doom boobu yàlla dina ko musal du musa nekk njaalokat du musa nekk kuy karabaane du musa nekk kuy mbaraan yàlla na ko yàlla barkeel yaa rabbi fa taqabbalaha la ko nangoo xam nga mbokk yi tey dafa métti lool da ngay yar sa njaboot du ñu du ñu mar du ñu rafle bu ñu feebaree nga faj leen ñu ngi ji condition yu baax benn kenn koo xam ne nitu karabaane la jaar fële ci sa gannaaw collecteur la sa gannaaw ñàkk fexe ba génnee sa doom doo yëg ba biir bi na dungu kanamam lii kan la diw la xam nga mbokk yi lii bon na de képp kuy def loola le xamal ne sa place mi ngi ma doomi aadama bi góorgóorlu ci njobootam lu war ci ñoom yëpp nga def ko yow nga jaar fale di ko teg gàcce eh, da nga yàqule àddina da nga yàqule yowmal qiyaamati sa mujj dina ñaaw kon mbir maa ngi noonu le fa taqabbalaha ci la ko nangoo rabbaa boromam yàlla daal di ko nangu bi qabulin hasanin ci nangu gu rafet wa anbataha yàlla saxal yàlla jebbil yàlla meññental mm, daf ko nabaatan muy gàncax nabaatan muy jëmm nabaatan muy askan nabaatan muy xeet nabaatan muy famille goo xam rafet la ah loolu amee nag ba mu demee bay bëgg a màgg ñu ne ko nañ ko yóbbu fi baayam nekkoon ca baytul maqdis eh, ci eh, baayam li mun na moon ca moom ñu def ko bañ ko yóbbee nag ne eh yéen mbokk yi seen mbokk mi fi nekkoon di imraan te mu doon toppatoo néegu yàlla gi yàlla jël ko nisaroon na day ne doomam bi ah, bu demee ba tàmbali màgg nañ ko ànd fii mu wutu ko ci ay liggéeyam waaye nag jigéen la nag ah, kenn ku nekk bëgg yaa koy toppatoo kenn ku nekk bëgg ci xariti papa yow la bañ demee ba bëgg andi coowaloo booba yonte yàlla Zakaria mi ngi foofale mu ne kenn ku nekk na andi xalimaam bi mu doon bindee tawraata xalima bi mu doon bindalee ay taalibeem ñu àndi ndox def ko ci kël sànn ci xalima yi ku bosam tëmb ci kaw ñu xam ne yow la ko yàlla la yaa koy yar ku bosamam nuur ci suuf ñu xam ne yow bokkoo ca ca lañ sànnee xalima ya ci kaw ndox ma ci biir këll ga xalima yont yàlla Zakaria daal di tëmb ca kaw é yàlla moo rëy politique gis nga jigéen bii sëyal Zakaria ak yaayu Mariama ñoo bokk kon mun na wéet ak moom te du araam kon gis ngeen mbiru yàlla de Zakaria soxnaam ak yaayu Mariama ñoo bokk ndeeg bàyyi kon Mariama daanaka doom la ci moom ndax jigéen ab jabaram moo ko jur gis nga tëraleenu yàlla fa kafalaha daal di ko togg ak yaram Zakaria kullama daxala saa su tabbee alayha Zakaria almihraaba pekk ba pekk mooy fi elimaan di dugg nii di julli saa su duggee ca pekk ba wala ca pantere ba wala ca mihrab ba wajada dana fekk indaha fa zakar fa fa mariama risqan wërsëg lii jaaxal ko luy ñor nawet mu fekk ko fa noor luy ñor noor ñu fekk ko fa nawet luy ñor lolli ñu fekk ko fa cooroon luy ñor cooroon ñu fekk ko fa nawet mu jaaxal ko lool gerte gu tooy digg nawet xam nga lii dina jaaxal doomi aadama de gerte gu tooy ah, gerte gu tooy ci diggu noor xam nga gerte gu tooy nawet lañ ko xamee woon waaye dem ba diggu noor gerte gu tooy mu ngi ni lii dina jaaxal doomi aadama de lii jaaxal ko lool xaala ci la waxee yaa maryamu eyow maryama ana laki ana fan la dikkee di la ñeel haasa lii xaalat mu ne huwa loolu day eh, huwa mbir moom min indillaahi fa yàlla boo wallahi min indillaahi moo tax bu la yàlla mayee indiyaat eh, jeex na waa doo yëgati xiif doo yëgati mar yàlla nañ ko yàlla may mbokk yi xiif baaxul de xiif dana ñàkkaloo nit ngoram ñàkkuloo ko diina dana am ku sàcc fekk ndeysaan yàlla bindeew ko càcc waaye dem ne ba bugg a dee rek nga xiif mu daal jël ci dara loola la am na benn téere tubaab yéen ñu jàng français am na téere bu ñu tuddee les Misérables Misérables arab yi naan ko albu asa ki ko bind mooy Victor Hugo ba muy tàmbali téeréem ba ki nga xam ne moom la jël mu mel ni acteur ba daanaka ñàkk ak jafeñ ak xiif moo ko dugal ci lu mu duggoon dem na ci boulangerie ba mu gis mburu borom boulanger ba gisu ko te xiif la bàyyi kër moom ci boom dafa xiif mu toj veere génne mburu ya fekk sa njëkk ba yore na ko waaye xiif bugg na ko rey nii la mun a def ci lañ ne bandi la daanaka téere bi yëpp dañ ko jox maqaamay bandi fekk cosaanam du bandi ku baax la woon waaye coonoy xiif moo ko dugal ci loole la Victor Hugo moo ko bind Victor Hugo benn bindkat la ci réewu France ku bind bind yu yaatu la moo bind téere boobu di misérable moo te nee nañ gor goor ci dara waaye boo goorul ci dara doo mun a gore de kon yàlla nañu goor ci dara yaa rabbi lu mu teg xaalal ci la waxee huwa lii de min indillaay fa yàlla la boo kon yàlla nañ yàlla may indi yat yi yaa rabbi inna laa naka yàlla yarzuqu dana wërsëgal ma ne caaku ko soob bi ay xisaabin ci dul di ko rek regle de xunaalika foofale yonent yàlla zakariya yàgg na amul doom ba mu gisee loolu nag ah mu ne yàlla mi may kii lii kon mun na ma may doom man màgget naa te aw ma doom kon danaa ñaan yàlla ngir mu may ma doom hunaalika foofale day daa ci la wootee zakariya rabbahu boroomam xaala mu ne rabbi ey yow sama boroom habli nang ma may min la dun ka bawoo fi yow zuriyatan njoboot o yàlla maa ngi lay may maa ngi lay ñaan nga may ma njoboot waay waaye jeexagul de may ma njoboot ana lum ci teg tayyibatan njoboot bu baax ndeysaan eh, keroog maa ngi dégg ku jegeñoon imam Hassan Cissé yal na yàlla yokk ko teraanga ñu ko tudde alaaji paate caam ku baax la ku am yërmande la yal na yàlla fay ko nee na imam Hassan def ko ne ñu la ñaanalee yal na yàlla mooy la gudd fan nee na bul raayagum de des na de buñ ci tegee yal na ci yàlla boole wér-gu-yaram nga soog a raay sa kanam waaye boo dundee téeméer it te dañ lay jógloo di la tëral sa dund lan la jëriñ sonn sonn nga sonnal nga doomi aadama moo tax ñaan foog mu daanu bul yàkkamti ñu ñaan la nga dagg nee na imaam Hassan moo doon wax loolu bu ñu la ñaanalee gudd fan bàyyil ñu daaneel ñaan nga de bu ñu ci tegee wér-gu-yaram ñaan nga daanu na boo amee gudd fan am wér-gu-yaram da nga jëriñu da nga jëriñe da nga liggéeyal yàlla danga nga liggéeyal naa Muhammad kon booy ñaan njaboot na nga ñaan njaboot bu barke waaye njaboot goo xam ne bés bu nekk ñu ne la demal wuy police waaw saa su nekk kan moo def li di wa def lii xam nga loolu doy na waar yal na yàlla dimbali loo denc mu jël du la andil te loo teg mu yóbbu li métti na loolu moo tax ba mu ne zuriyatan nga may ma njoboot mu teg ci ne tayyibatan njoboot gu teey yal nañ ko yàlla may yaa rabbi bu la yàlla mayee njoboot gu teey eh, noppalu nga innaka naka yow yàlla sami uddu'a yaay aji nanguwaa ko ne ñaani fanaadatu ci la ko wooyee al malaykatu malayka yi eh, wa huwa fekk moom qaa'imun mooy aji taxaw yu salli ngay julli fil mihrab ca mihrab ba mi ngay julli moom yoon ci yàlla zakariya na malayka daal di ko woo ni anna allaha e naka yàlla day yubashiruka mi ngi lay bégal danga am si doom bu tudd yaxya yaxya la nit ñi dagg naan yaaya du yaaya de yaxya la yàlla na la may doom bu tudd yaxya musaddiqan bu dikkee aji dëggal la bi kalimatin ci baat mi na lay bu bowoo ci yàlla moom ak yonte yàlla Muusa ñoo daje woon moom ak yonte yàlla Isa astaghfirullah moo yonte yàlla Isa lii nag war nañ ko xoolaat seetal ñaari yonent daje benn jamono mun a doxal diin ak yàlla te ñaari sëriñ mun nañoo nekk benn bërëb doxal diin ak yàlla boo demee ci ngénte yi boo demee ci dëj nga gis sëriñ si toog kenn ku nekk sol yu dàkkande yooyu dana ko funkil funkil bañ téye na moom rek mooy sëriñ fii sama taalibe la baayam nangam baayam nangam kon maslaha bi war na nekk ci diggante nit yàlla yi dama doon gis ku baax ki yal na yàlla yokk leeram muy sëriñ Baara Mbàkke seetal ñoo na Medina Baay fii ñëw ziyaare nuyoo ñëw na ñaseen e, jaale si kon xam nga kii ëmbalul woon ñooñu ak kañaande ëmbalul woon ñooñu ak mbon nit yàlla seeni gise lu di rafet la lu di rafet la boo seen gise jafe ñee it ah ku ci xewle boo mënta demit nga yeble walla am nga aw dara nga daal di ko yónnee boromam lii dafay rataxal diina lislaam taalibe yi dañuy noppalu waaye ñaari discours yi moo sonnal taalibe yi discours bon boo ànd boo boo wéet ak sa sëriñ nga ne li ma yor kenn yoru ko boo toggee ci biir mbooloo nga ne digal naa leen sëriñ bu ngeen gis ngeen ànd ak moom waaw discours yooyu dafay jaxas dafay jaxase taalibe yi waxal benn wax rek taalibe bi xam fu muy teg tànkam waaye boo ne taalibe ci biir néeg yàgg moom doom li ma yor kenn yoru ko ah bu boo génnee te ci biir mbooloo ne diina gi ñun ñoo ci yem li nekk fële moo nekk fële li nekk fële moo nekk fële taalib moo lay njëkk a jéppi day xam na yow macha allah yal na yàlla dimbalañ yaa rabbi seetal yaxya ak isa daje woon nañu du yaxya ak muusa de sabqul qalam sabqul lisaan moo ma jiitu woon waaye isa ak yaxya ñoo daje woon musaddiqan di aji dëggal bi kalimatin ci baat baat min allah gu boo ca yàlla ga te moo naa isa am na ñu ko firee noona le wa sayyidan sang lay doon ah bu màggee sang lay doon sang nag yéen ñëpp xam ngeen ko nee nañ sang yi ñett lañu sang boo xam ne gaynde la ak sang goo xam ne nga ko watoxa di tugg mbëtt am na boo xam ne mbëtt la am na kilifa goo xam ne golo la bàyyi ngeen ci xel am na kili am na sang boo xam ne jikk koy gaynde la yore am na sang boo xam ne koy golo la yore am na sang goo xam ne jikkooy mbëtt la yore mbëtt nag kenn an kenn mënta ànd ak moom bu doomam doxee gannaaw mu caw ko ne ko yaa ngi sama geen bu ñëwee ci wetam mu daal ko xosi ne yaa ngi may diir mbagg bu ko jiitoo mu buusu ko ne ko soccant yi ma bugg a for yaa ngi koy for waaw kon ñu doom nan la doomam di def bu ko toppee mu ne joggi nga sama geen bu ñëwee ci wetu tànkam mu xosi ko ne ko yaa ngi di yaa ngi diiroog man mbagg bu ko jiitoo mu buusu ko moo ne ko gunóor yi ma waroon a for yëpp for nga ko kilifa ban kan kilifa googu am na ci biir nit ñi bu ko nit naa daja naag sa doom Dakar mi ngi lay nuyu mu naa mbaa jox na la dara du laajte nan la yaramam mel mbaa jox na la dara waa lii waajur woowu nan la mel xam nga lii doy na waar baay dafa war a def bu doomam dikkee gën ko noppalu waaye yow baay nga dund ba sa dund jeex nga ne njaboot na la yoraat lii doy na waa avancement du ñëw ci kër ñaareel ba mooy baay boo xam ne jikko kilifa goo xam ne ko golo la yore golo nag xam ngeen ko bu duggee ci tool la ñor ñu jiitu lekk ko la ñorul duñ ko fa bàyyi mu ñor ñeneen fekk ko fa dafay dagg ñu sakoy koy sànnante golo noonu lay la mbooloo golo ña jiitu lu ñor ñu dagg ko lekk la ñorul duñ ko bàyyi pour ñuy ñëw de dañ koy dagg di ko sànni kon lu yeween dana fa nekk lu yeween du fa nekk am na kilifa yu mel noonu la lépp lu feeñ di lu neex ñu ne ko taf toog te du ñu bàyyil njaboot ga dara ban kilifa moo baax mooy kilifa yi gaynde gaynde du bàyyi doomam song balaa ñu koy gaañ mooy song daal di fàdd ñëw tëral ko ay doomam toog fële bàyyi leen ba ñu lekk ñu regg mu soog a ñëw lekk bu déggee lu baatam riir lu raglu la mu teg ci dënnam doom yi nañu wéeru ci gannaawam bu leen dara gaañ bu leen dara jot yàlla nañ yàlla may kilifa yi mel noonu yaa rabbi kon mbir maa ngi noonu la wa sayidan kii sang lay doon wa waaw baat bi nag ngeen bàyyi ci xel lool firi yi dafa bëri lool xasuur mooy doomu aadama boo xam ne tëlawul te mu moytu jigéen mooy koo xam ne dafa senkaleeku ñenkaleeku ak senkaleeku lu ñu benn da dégg jigéen yi sax dañ ko diw mi dafa senkaleeku mooy koo xam ne feebarul dara wéru ko mun na denc jigéen mu bàyyi ko ngir am na leneen lu ko gën a ñor waa xasuuran ku senkaleeku lay doon yonte yàlla yaaq yonte yahya dund na ba dee amul amul jabar amul doom xasuur la woon yonte yàlla Isaa tamit naka noonu de amul soxna amul doom benn mu réere waxuma réer menteng waaye benn mu réere ci bëti jaami wa nabiyan aw ku ñu sol mbuur la ñuy doon mu ne saali na bokk ci way baax yi xaala ci la waxe moom Zakariya rabbi e yow sama boroom ana ana fan ci yakunu lay nekkee lii di ma ñëwal xulaamun doom ana man xulaamun fan lay amee cendant gulaam mooy cendante mooy doom ji góor ah jam om mooy xilmaan waxal dëgg-dëgg balaxa jot na ma alkibaru mag dem naa be mag ana naka laay amee doom wam raati te sama soxna si aaqirun aji jël mbét la dafa jaasir du am doom ah xaala malayka bi ne ko kazalika mbir mi dee ca yàlla lu ko yombale lu ko jàppani la allah yàlla yafalu dana def kazalika naka noonu maay shaaw lu ko soob xaala ci la waxee moom zakariya rabbi e yow sama boroom ijal na nga mu jël lii ñeel ma aayatan aaya nang ma defal xar baax goo xam ne dinaa ca xam ah danaa am doom de yàlla ne ko xam nga sa làmmiñ bii ñëpp nee nañ yàlla daa ko xutba booy xutba dafay neex lool ku gëmul yàlla soo bu ko dégg dana gëm yàlla secret bi ma def ci làmmiñ bi ba mu doon wax danaa dindi secret boobu la doo mun a wax ah mu ne ko loolu na lan lay amee mu ne ko ah, seetal sa làmmiñ nga seet làmmiña muuma li la wax loo ñàkk a wax loo muuma kan la man yàlla la yàlla loolu danaa mu ne ko fii ba ñett fan danaa ko de mu daal di rocci làmmeñ ba ca moom dégg nañ ko xaala ci la waxee rabbi sama bo xaala ci la waxe aayatuka sa aaya allah tukallima mooy dina la dikkee ñàkk mun a wax wax naa sa nit ñi salaasata ayaama ñett fan illaa ramsan bu dul junju rek wasku na nga fàttale ko rabbaka sa borom na nga tudd sa boroom même boo ko mënta tudd sa làmmeñ na ko tudd sa xol moo yàlla ci xol ah lu rëy la lool wasku na nga tuddi rabbaka sa borom kasiran lu bëri wa sabbi na nga sabbaal bil asi ehm, ca ngoon a ngoon wal ikbar ak ca cuuy a cuuy kon ba tey da nga dégg yeneen nit ñuy naan lu tax borom tariqa yi ñuy tànn zikar suba di tànn zikar ngoon te waxuñu ay digg bëccëg yàlla moo ne ashi wal ikbar suba la yàlla tudd ak ngoon a ngoon kon jëkkat jant bi di génn ak gannaaw bu jant bi soowe wa sabbi sabbaal bil asi ca ngoona ngoon wal ikbar ak ca cuuy a cuuy kon ba tey da nga dégg yeneen nit ñuy naan lu tax borom tariqa yi ñuy tànn zikar suba di tànn zikar ngoon te waxuñu ay digg bëccëg yàlla moo ne achi wal ikbar suba la yàlla tudd ak ngoona ngoon kon jëkkat jant bi di génn ak gannaaw bu jant bi sowe wala ba mu bëggee sow ay jamonoy lijaaba wa fatlekul is xaalal ba nga xamee ne xaalal wax na almalayka du malayka yi malayka bi dikk na yaa mariama ay yow mariama a inna allah naka yàlla day istafaaki yàlla tànn na la te dootu la ñàkk tànnati muk wa taxaraki yàlla laabal na la wastafaaki yàlla xent na la yàlla segg na la ala nisaal alamina ci sa jigéenu jamono waa ci sa jigéenu addina waa jigéeni mariama ku ci motoon la xadijatu bintu xuwaylit ku ci motoon la aïchatu bint abi bakrin ku ci motoon la fatimata bint rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ah ku motoon na dem dem na ba takk kulbaaniya ba takk siddiqiya jigéen siddiqiya lay takk jigéen yaa mariamu yow mariamu uqnuti mokkal rumbax waay uqnuti ommatul uqnuti na nga sa borom wasjudi eh, na nga ne yalang eh, na yalang bul siggi xool kenn ko dul yàlla waaw ah, war kay na nga ne yogg ma araak yi na ànd ak way yogg yi waaw ah, bul réy réylu bul ngande ngandelu waaw ah, bul fonki fonkilu zalika loolu yëpp yow muhammad fekke woo loolu le min an bàyyil xay bi mi ngi bokk ci solo yi fàddu nuy yi ñu ngi koy juux ileeka jëm ci yow yow muhammad fekke woo waaye wax naa la ci lu leer Alfayda FM wal muhsanaat ak waay sangew yi min allazina ña nga xam ne utul kitaaba joxeef na leen téere kon mun nga takk tubaab nit ku ñu takk tubaab dara nekku ci hmm? yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi takkoon na safiyatu te safiyatu sët la woon ci yonte yàlla haaruna kon yahudiya la mi ngi ko takkoon ci xaybar kon lii séeréer la lii bambara la lii pël la lii saraxole la lii joolaa la sey seen diggante lu leew lu dagan la de laa ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dindi na mbooleem frontière isa ataytu mu xooleen dem jox ngeen ñooñu la ujuroon na seen pay seen seen can yi ujuroon na seen pay muhsinin na nangeen wut jigéen yu baax yu sangew yu yiw yu yu tedd xayra musaafihina bu leen wut jigéen yoo xam ne ay karabaane lañu wala jigéen yoo xam ne dañuy mbaraan wala du caagal mutaris yi ñoo xam ne dañuy jàpp ak daanin eh, waaw ah, ay far jigéen buy am far déedéet denc ko baaxul wa man yakfur képp ku wedd bil imaani ci gëm yàlla dem di dugg ci yooyu faqat ci dëgg-dëgg xabita màbb na amalu jëfam foofu woo kookale fil aaxira ci allah xabi na xaasina mu ngi bokk ci way perte yi kon njàppa ngoog jàpp jàpp zahir dafa am jàpp baatin dafa waaye jàpp zahir moo ëpp tey ci doomi aadama yi ah jàpp zahir di ngeen taal làmp yi nit daal di gis taal leen làmp ci kanam yëpp doomi aadama yi gis ko yàlla moo koy fay yàlla mi ngi wax njàpp waaye njàpp li muy tekki ci dëgg-dëgg boo raxasee sa ñaari tenq yi mooy yàlla yàlla deñ naa ba deñ ba jeex takk ci lépp loo xam ne bëggoo ma laal ko bàyyi naa ko boo raxasee sa gémmiñ mooy yàlla fen dootu ko raxas naa ci sama dootu ma ko def dootu ma ràmbaaj dootu ma naa feq li raxas gémmiñ ci loolu lay jëriñ nga raxas sa sa bakkan mooy yàlla bépp xet goo bëggul dootu ma ko jegeñ ba koy nokki nga sa loxo yow yàlla du ma jël lu araam dootuma ko def nga masa sa sa bopp yow yàlla dootuma yenu dara loo xam ne lu lewul la nga sa nopp yow yàlla dootuma déglu dara loo xam ne lu araam la nga sa tànk yow yàlla duma dem fenn foo xam ne fu bon la fu araam la ah lii mooy njàpp dëgg-dëgg waaye nga njàpp ba fa daal di julli salaamaaleykum yaa ngi daw jëm mbapat ba yaa ngi jëm làmb ba yaa ngi jëm ca mitin ba ah, xam nga ne yow li nga jàpp ak li nekk du benn moo tax yàlla ne yaa ayyuhallazina amanu ey yéen gëm yàlla iza qumtum bu ngeen fase yéene ba jëg ila salaati jëm ci yàlla faxsilu na ngeen raxas wujuhakum seen xar kanam yi bu seet ne dangaa leel déedéet fi kawar doon sax ci cosaan na nga xaas foofale ba sa ba sa ba sa sikkim fii de bu dee sikkim bi dafa fatt da koy masaa rek bu dee sikkim bi na fattul der baa ngi feeñ da ci da koy da nga koy xaas bul loolu kawar gu tuuti ga dafay sànni ndox ma ah? yaatuwaay ga mooy keru ñaari nopp yi bu ndeyjoor ak bu càmmoñ waaw yàlla lii la digle sa xóot-xóoti lii dox sa diggante ñaari bakkan yi nañ ci def ndox am na seen ñu seen tuñ rëy lool bee nañ ci dugal ndox am na seen bët daal di xóot lool nañu dugal ndox ba ci biir lii de la yàlla digle subhaanahu wa taala wax si lu wujookum ngeen xaar seen kanam yi wa aydiyakum ak seen loxo yi ilal marafiq ba ci conc yi am na ñu ne conc yi dafay duggaale ngir mu daal lëm am nañu de bu yegg ci conc bi rek yem na ah waaye dugal ko ca mu gën a lëm moo gën a yomb ndax ñëpp mënu ñoo tolloo ci yemala ko ca Alfayda FM lii nga xam ne moom la laajte nii yaa ngi jàpp nee nañu bu fekkee yonent bi sallallahu moo la woo na nga dagg dem wuyu ji ko bu fekkee sa wasila ki nga xam ne moo lay xamal moo lay yeggale ci yàlla ah moo dox sa diggante sa borom di la ko won ne na kooku bu la wooyee na nga ko wuyu waaw boo ñëwee nga mottali nga mottali bu fekkee sa yaram wowul bu wowee nag ah nga tàmbaliwaat ci misaal bu fekkee nag ndey ak la nee nañ maqaama boobu la yàlla jox na leen ko waaw bu waa nga def ko waaye bu fekkee julli la farata sa ñoo ko dog waaw waaye bu fekkee yi nga xam ne nag tàmbali la farata la sax waaye daf lay jëmee ci beneen farata boo xam ne sañoo ta wax sañoo ca yëngu nee nañ mun nga ko dog ngir jëmm yooyu la boo ñëwee nga mottali ko wala nga sàkku ci moom ne ko maa ngi jéggalu moom mottali lii lépp euh, feeñ feeñ na ci yax yi wa am saw na ngeen na ngeen masa bi ruusukum seen bopp yi wa arjulakum ah ngeen raas wa arjulakum seen tànk yi boo ne arjula kon wujuha kon da ngay raxas sa tànk naka dinga nga raxas sa kamal sa kanam boo ne wa arjuli day mel ni bi ruusikum kon da ngay masa sa tànk am na réew yoo xam ne du ñu raxas seen tànk dañ koy masa wa in kuntum bu ngeen nekkee junuban di aji di aji ànd ak janaba bu fekkee da ngeen ànd ak janaba fataharu na ngeen laablu na ngeen sangu ndox moo xam ne cafka ba soppeekuwul melokaan ba soppeekuwul xel ba soppeekuwul wa in kuntum dem nekk ngeen mardaa di waaye feebar aw ala safan wala ngeen nekk ci tukki aw jaa wala dikkee ahadun kenn minkum ci yéen mënal xaayati ci dem àll aw laa lamastumu nisaa wala ngeen laal jigéen boo laalee jigéen nag a ah, maniw bu génne ak bu génnul yépp danga nga sangu rek de waaw sangu rek de falam tajidu te amu leen maa an ndox fa tayammamu na ngeen tiim sa'idan ci pàkk tey ban pàkk bu teey hmm? na ngeen tiim ci pàkk bu teey waaw mooy suuf mooy salañ mooy mooy doj waaye suuf soo dañ ko saaf ah walbati nañ ko duñ ko jëfandikoo de laso fañ koy tibbee bu fekkee foofu la mën nañ ci tiim waaye buñ ko xasee togg mënatuñ ci tiim xoori paañ mënuñ ci tiim ndax lu luy dund la woon karo mënuñ cee tiim basang yi sajaada yi li yëpp mënuñ cee tiim de ne wam saw na ngeen masaa lu wujukum seen kanam yi wa ay dikum ak seen loxo yi mënu ca moom maa yuridullah yàlla lay bëggul li yajalakum yàlla lay nommul yàlla du nomm nommul te du nomm muk li yajala ngir mu mujjal aleykum ci yéen min harajin aw tiis min harajin aw coono moo te loo munul rek yàlla dendal na loo mun walakin li nebbe li nebbe am yuridullah yàlla la mu nomm li tahirakum ngir mu laabal leen wala itti ma ngir mu motal ni amatoo xéewalam aleykum ci yéen la allakum ngir ga yéen tashkuruna ngeen sant borom bi subhanahu wa taala juróomi sangu yi yëpp benn façon sangu dong la janaaba niñ koy sangoo noonu la ñuy santoo deret noonu la ñuy sangoo dereti aada jigéen boo xam ne dafa nekkoon ci dereti aada ba mu dagg mooy règle noonu lay sangoo waaye gësin jigéen bu wësinoon dereti gësin di génn ci moom bu deret ba jeexee noonu lay sangoo waaye kéeféer bu tuub tamit noonu lay sangoo waaye ku dee tamit noonu lañ koy sangee de kon sang yi juróom yëpp benn façon sang bi dong la dégg nañ ko ah wala itam ma ngir mu motal ni amatoo xéewalam aleykum ci yéen wala allakum ngir nga yéen tur tashkuru la ngeen sant borom bi waskuru fàttaleku leen ni amatallaay xéewalu yàlla aleykum ci yéen wa misaaqaw ak ndëgër laayam a ah, allazi ba nga xam ne waasarakum dëgër dëgër fasante na ko dëgëralante na a ah, teengalante na ah dangante na bii ca loolu is xultum fàttaliku leen ba ngeen ne samina dégg nañu waataana topp nañu ñaar la ci baatin mooy bésu alastu bi rabbikum ci zahir moo ñi jaayante seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam neewoon ngeen dégg nañ topp nañu kon wattaqullaa ragal leen yàlla inna laa naka yàlla day alimun aji xam la bi sudur lépp lu nekk ci dënn doomi aadama yi yaa ayyuhal lazina amanu ay yéen doomi aadama yi kunu nekk leen xawaamina di waay fagaru xawaamina di waay laxasu xawaamina di waay euh, pasteefu lillaa ñeel borom bi te taxaw dëgër këcc suhadaa ngeen di waay seede bil xis di ci lu kocc lu jub kocc ko caaral wala yajrimannakum bu mu leen togg mukk a sanaanu mbonu xawmu nit ña ala allah taadilu ba ngeen bañ a maandu idilu na ngeen maandu li ngeen xam ngeen yem ci li ngeen xamul ngeen sàkku ji ko waaw huwa loolu aqrab moo gën a jagañ di taqwa ci ragal yàlla wa taqullaa ma ngeen ragal yàlla inna allah naka yàlla day xabirun aji dañ kumpala bi ma taamaloon ci lépp lu ngeen di jëf de wa adallah yàlla dig na alladina amanu ñu gëm yàlla wa amilu saalihaat te ñuy def lu baax waaw ah, day dig na leen lahum aji sax nekk ñeel leen maxfiratu njéggal wa ajoon ak pay azimun gu ngand ngand de walladina kafaru ñu weddi yàlla wa kazabu ñu fenloo bi ayat naa suñuy aaya ah ñu fenloo suñuy aaya ulaayika ñooy asaabul jahim ñooy waa jahim yàlla nañ ci dégg doy yaayu lazina amanu yéen ñu gëm yàlla uskuru fàttaleku leen ne amatallaahi xéewalu is ba nga xamee ne xam ma yitte woona xawmun ay nit an yabsutu ñu tàllal ilaykum jëm ci yéen ay diwum seen loxo waaw ah, ngir njatamal leen booba lislaam amagul doole faka fa yàlla fekk ay diwum loxo ñooñale an kum walis leen wattaqullaa ragal leen yàlla wa alallaa ci yàlla képp fal yatawakkal na wéeru foofale al mutawakkilun waay wéeru yi al mu'minun waay gëm ñi Alfayda FM wala xat ci dëgg-dëgg day axasallaa yàlla jàppoon na mi saaqa ndëgër laayu bani israil wa booba as naa ñu yebal minum ca ñoom naqiban fukki fukki kàngama ak ñaar fukki kàngama ak ñaar fukki kilifa ak ñaar wa qaala yàlla na inni naka ma akum maa ngi ànd ak yéen la in aqamtumu salaata fii ak yéen ngi taxawal julli wa atooytumu zakaata ngeen di joxe azaka wa amantum ngeen gëm rusuli sama yonante yi wa azartumu ngeen dooleel ko ngeen supporté ko wa aqratumullaha ngeen lebal yàlla xardan ak bor gu rafet ah ngi encaissé ji ko yowmal qiyaamati waaye lebal leen bu ko defee la ukaffiranna wallaahi danaa far ak far ankum ci yéen sayyi'aatikum seen ñaawteefi wala udxilannakum naa leen tàbbil ak tàbbi jannaat ne ay aljana aljana yoo xam ne tajri dana daw min tahtihaa ci ronam al anhaar mboolem xeetu déeg yi ñi naan mboolem xeetu naanteefi wa man kafara ku weddi ba ba'da zaalika gannaaw loolu minkum ci yéen faqad dalla sànku na sawaa sabil yoon gu yemb fa bi ma naqdim ngir firi gañu firi mi saakoom seen dëgër ak yàlla waa jaal naa ñu mujjal xuluboom seen xol xaasiyata mooy aji wow yuharrifuuna al kalima ñu nga wël ñu ngay fetal wax ya ñu ngay wëlbati wax ya an mawaadi di ko jëlal fi ko yàlla terewoon ah, wa nasu fàtte nañu xasan cër mi maa ca la nga ne zukiru tudde leef na leen bii ca loola le wala tazalu doo dañ mu tattalu nga yéer ala xaainatin ci li ñuy nëbb seen biir xol ya ci seen ndëxëñ ya la ñuy ndëxëñ seen biir xol doo dañ mu di ko yéer di xam seen mbon minum ci ñoom illaa xaleel nga lu tuuti de minum ci ñoom faafu na nga jéggale anhum wa sax nga bale inna allah naka yàlla yuhibu dana dana baaxe dana bëgg almusina waaye def yu baax yi wa min alladina am na ci ñi nga xam ne xaalu dañoo ne innaa naka ñu ne nasara aw ay nasaraan lañu axas naa jàpp nañ minum ci ñoom alfayda fm axas naa jël nañu ca ñoom misaaxam seen dëgër laay war na su fàtte nañu xasan cër fàtte nañu wàll mimma ca la nga xam ne zukiru tuddeleef na leen ko bii fa aqray na moo tax xiirtal nañu waaw xiirtal nañu euh, jatamal nañu bay noom seen diggante al adawata noone wal barda ak mbañante ilaa yawmil qiyaamati wa sawfa yéex a yéex yu nabbihumullah yàlla dana leen dana leen solool bi maa kaanu lañ nekkoon yas noona doon ko jëf yaa ahlal kitaab yi yéen yahud ak nasaraan xar ci dëgg-dëgg jaakum dikkee ne leen rasul naa suñu yonant yu bayyinu di biral lakum ñeel leen kasiiran lu bëree bëri mi ma ca la nga ne kuntum nekkoon ngeen tux fa ne doon ko nëbb mi ne ci téere gi waaye afu yàlla dina jéggale ankaseen ci lu bëri Alfayda FM xat ci dëgg-dëgg jaa akum dikkee na leen min allah ci yàlla nuurun leer wa kitaabun ak téere mubin ngu bir di yàlla dina gindi bii ca loolu allahu yàlla man ni tabaa ko topp ridwaanahu ngër mandi wut wut ngër mandeem subula salaam yoonu jàmmangoog wa yuxrijukum yàlla dina leen génne mina zulumaati ci lëndëm ila nuuri jëm ci leer bi izni ci ndi ci ndi ci coobee rek yàlla wa yahdihim yàlla dina leen gindi ila siraatin mustaqimin jëm ci yoon ku jub kocc rek alfayda fm laqat ci dëgg-dëgg day kafara weddina allazina kaf allazina ña nga xam ne xaalu nee nañu inna allah naka yàlla huwal masihu mooy isa ibnu maryam wallahi yàlla day du isa isa du yàlla isa abdullahi la qul neel fa man yamliku anakan moo attan anakan moo nar mun anaka man maa nawe atal min allah ci yàlla cheyan ci dara in araada yàlla bu nommee an yuhlika mu alak almasih ibnu mariam wa ummuhu ak yaayam wa man fil ardi ak ñi ci suuf si jami an mboole seen walilaa aji nekk la ñeel yàlla mulku samaal nguuru asamaan yi juróom-ñaar wala ardi ak suuf si ma baynahuma ak li ci seen diggante ngelaw leeg biddiw yeeg wogg yi ko yàlla dina bind maay shaaw lu ko soob loo xam ne doomu aadama xam-xamam tollu gu fa wallaahu yàlla qadirun yàlla dogalaa kon la ala kulli shay'in ci mboolem mbir wa qaalat wax na alyahuudu yahuudi wa nasaara ak nasraani nahnu naka ñun abnaullaah ñun ñooy doomu yàlla yi wa ahibaaw ñun ñooy ay soppeem xul neel bu loolu bu dee loolu dëgg la falima ana lu tax ana lu tax yu azibukum di leen mbugal moom yàlla bi zunubikum seen bàkkaat yi bal li fi nekk antum yéen bashoon ay mbindeef ngeen mi man xalaka ci li mu bind yaxfir yàlla dina jéggal li mën a caaw ku ko soob ci wa yu yàlla dina mbugal ma ne shaw ko ko soob ci maandoom walilaa aji nekk la ñeel yàlla mul ko samaat nguuru asamaani wala àll ak suuf si wa maa baynahuma ak li ci seen diggante wal masiru mujj waay ba ilee ci yàlla la yaa ahlal kitaabi eey yéen ñooñ téere xat ci dëgg-dëgg day jaakum dikkee ne leen rasul naa suñu yonant yu la kom di leen biral ala fataratin ci aw diggante mina rusuli ah yonant bu dem keneen ñëw yonant bu dem keneen ñëw am na yonant yoo xam ne ñoom ñoo daje benn jamono sax ah? naka Muusa ak Haaroon ah, naka Yahya ak Isa yonte yàlla Muhammad nag moo mujj ci yonante digganteem ak yonte yàlla Ida eh, juddoom sallallahu alayhi wa sallam ak yonte yàlla Isa juróomi téeméer at ak juróom-ñaar fukki at ak benn ah an taqulu na ngeen mooti di wax ne maa jaana dikkeewuñu min basharin min nashi min bashirin ku ñuy bëggal ci yàlla wala tu jaaga nasin ku ñuy xupp ci yàlla faqat ci dëgg-dëgg day jaakum dikkee ne bashirun ah wa man nazirun yonent yàlla Muhammad dikk na mooy bashir ak nazir wallaahu yàlla qadirun dogalaakoon la ala kulli shay'in ci bépp mbir wa fàttalekul is qaala ba waxee Muusaa li eh, nit uskuru fàttaleku leen ni'matallaahi xéewalu yàlla aleykum ci yéen is jaala ba mu defee fiikum ci yéen anbiya ay yonant wa jaalakum mu def leen mulukan ngeen di ay mu def def leen mu jël leen ngeen di ay buur seet leen teraanga bi ngeen am wa aataakum dikkee na leen maa loo xam ne lam yuuti dikkee wu ko ahadan kenn minal aalamiina ci doomi aadama yi yaa qawmi yéen doomi aadama yi a yaa qawmi yéen samay nit udxulu dugg leen al arda suuf sa al muqaddasata te mooy suuf ba yàlla ormaal te mooy Jérusalem waaw te mooy masjidu aqsa dugg leen foofale allati suuf sa nga xam ne kataballaa yàlla dogal na ko lakum ñeel leen wala tartaddu bu leen wala tartaddu bu leen dellu bu leen bu leen dellu bu leen waññar bi ko bu leen en arrière ala ala adbaarikum seen gannaaw fatanqalibu ngeen waññar bi ko fatanqalibu ngeen wëlbati ko xaasi na xaasi na di waay perte rek Muusa daal di dajale bani Israil mu ne xaalu ci lañ ko ne yaa Muusa ey yow Muusa ñun day dëkk boobu duñu fa mën a dem inna fiiha aji nekk la ci dëkk ba xawman ay nit jabbaari na ñoo xam ne ponkal lañu ah? am na ñoo xam ne fii nag ñu ngi koy firi firi goo xam ne du firi bu baax de nee nañu dafa am ko fa nekkoon ñu ko tuddi iwaj iwaj bu nuun nee nañ dafa njooloon ba tuufaan ba dikkee mooy jamono yonte yàlla nuux ndox mi mi ngi yemoon ci oomam ah dafa doon jël baleen ci biir ndox di ko di ko tàngal ci safara si di ko tàngal ci naaj wi di ko lekk loolu du dëgg ñu ne bu merewoon dëkk daf koy tiim ndox mi tuuru ci ndiggam fii ñoom ñu daal di woorle du ñu am ndox mu sotti ko dëkk ba la daal di jable ndox mi yóbbu leen ñu ne Muusa moo ko xeex ñu ne Muusa njoolaayam fukki xasab la woon yatam nga fukki xasab la mu tëb fukki xasab mu ngi jot waa ji ci dojoram lii du dëgg de ay israiliyaat la bi aadama passé ba léegi nit dafay gën a gàtt nit dafay gën a tuuti rek waaye nit gën a tuuta njoolati kon dégg nañ ko am na ñuy naan ñii ñoo fa nekkoon moo tax waa Israil ñu ne duñu ànd ak isa Muusa daay dugg foofale inna fiha aji nekk la ca xawman ay nit jàbbaar ni ñoo xam ne dañoo mbëru wa inna naka ñun lan na du laa duñ ko tàbbi mukk xataa yaxruju bete bu ñu génne min haa ca dëkk ba fa in yaxruju génn nañu fa in min haa ca dëkk ba fa inna naka ñun dey daaxilu na waay tàbbi lañu xaala ci la waxee rajulaani ñaari waay ñaari gaay min allazina ca ña nga xam ne yaxaafu na ñu ngi ragal yàlla an amallaahu yàlla xiyootal na alayhima ci ñoom ñaar ñu ne udxulu dugg leen alim ca ñoom albaaba ca bunt ba fa isa daxaltumu bu ngeen duggee ca ñoom fa innakum naka yéen xaalibuna yéenay waay not wa alallah ci yàlla kese fa tawakkalu na ngeen wéeru foofa la in kuntum dem nekk ngeen mu'minin di waay gëm alfayda fm xaalu ci lañ waxe yaa muusa ey yow muusa inna naka ñun dey lan nadxulaha déet ñuy dugg ci dëkk ba abadan be faw maadaamu fi ak ñu ngi sax fiyaa ca dëkk ba fasab demal anta yow wa rabbuka ak sa boroom fa qaatilaa ngeen xeex ak ñooñale inna naka ñun dey qaa'iduna waaye jekki lañ haahuna fii ndeysaan kere bésu badar yonte yàlla muhammad day sahaaba yi waxuñ ko ni dañ ko ni isab anta wa rabbuka fa nahnu ma'akuma minal muqaatilin lii de kàddu gi neex na demal yow muhammad ànd sa yàlla gi ñun ñi ngi ànd ak di jihaad keroog sahaaba lii lañu wax julli di waaye qawmu muusa dañ ko ne déedéet fasab demal anta yow wa rabbuk ak sa boroom waaw faqaat laa ngeen xeex ak gaaña inna naka ñun dey qaa'iduuna waaye jékki lañu xaaxunaa fii xaala ci la waxe moom Muusa rabbi ey yow sama boroom inni naka man dey laa am liku adduma attan duma mun yoruma amatuma sañ-sañ awma mun mun illaa nafsi bu ci jëmm suma wa axi ak sama mbokk mi te mooy Haaruna fafruq dégg ngeen baatu arab bi newul fa fariq de neewul teqalil dafa ne na nga sorale bu la nit soree ci lay soog a mun a jëriñoo ci yow jegeñ gu ëpp xaajib la ah jegeñ gu ëpp kiiraay la boo jegeñee nit jëgg-dëgg jegeñ dootoo xamati martabaam gisoo bët bët mooy gis waaye munta gis xef xef daf ko jegeñ lool waaye bu sërante amee rek ngeen xamante martaba moo tax ñu ne fafruq na nga yërale na nga yërale bay na naa suñu diggante wa baynal qawmi ak diggante nit ñi alfaasiq na ñay kàccoor xaala ci la yàlla waxe fa innaha naka moom dëkk boobu de day muharramatun lu ma araamal la aleykum ci yéen aleyhim ci ci ñoom na sanatan ñeen fukki at ndeysaan ci biir ñeen fukki at boobale ci la haaruna faatoo ci biir ñeen fukki at boobale ci la muusa faatoo alayhim assalaam ba léegi dugg ñu baytul maqdis ah lii yërëm lu na buñ demee benn dëkk baa ngi ne la rek ah, yàlla daal yatiihuuna ñu ngay baagante yatiihuuna ñu ngay gëlëm yatiihuuna ñu ngay ñu ngay salañ-salañi fil ardi ci suuf si yàlla na yow muhammad falaa taasa bul naagu falaa taasa bul am naqar falaa taasa sa xel bu mu bu mu yàqu falaa taasa sa yaakaar bu mu tas alal qawmi ci doomi aadama yi alfaasiqina ña nga xam ay kàccoor lañu am na fu nekkoon mbalit mujj na nekk jàkka am na fu nekkoon seen mujj na nekk jumaa mooy hisib addis bi mot na yal na yàlla dimbale ñu yal na yàlla baaxe ñu yal na yàlla jàmmal ñu yàlla bu yàlla tas yaakaar bi lépp lu ñu xacc yal na ko yàlla jegeñal lépp lu ñu dàq yal na ko yàlla soril taw bii di wàccee ni yal na ko yàlla taw barke taw xéewal taw naataanga yaa rabbi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim alfayda dana leen mébétloo yow xale nga magagoo wala yow fi toll ci daraja boo defee lii du jur dara wa maaye idum du leen dikk moom seytaane illaa xuróoran bu dul wor leen ulaayka ñooñu ànd ak seytaane maawam seen tàppuwaay jahannama mooy safara wala yajiduna du duñu am mukk maxiisan ak yolleekuwaay anha wali safara de wala dina ña nga xam ne amanu gëm nañu yàlla wa am lu saalaata def lu baax sa nudxiluhum xel si nañ leen dugal xel si nañ leen tàbbil jannaatin ay aljana aljana yoo xam ne tajri dana daw min taxtiha ci ronam al anhaaro mboolem xeetu naanteef yi ay jus la ah du xam ngeen jus yi orange la yi bisaab la yi buy la ah aljana moo neex te du nëb du forox waaw doo am loo yàbbi waaw noo bëgg rek noonu la xaali dina ñuy waay béel ci aljana abadan be faw abadan ba moos yàlla nañ ci yàlla boole wa adallah lii digab yàlla la xaqan te digab yàlla dëgg la wa man asdaq ana ko gën a dëggu yàlla ah, xiilan ci kàdd ana ko moo gën a dëggu mi na laaj yàlla xiilan ci kàdd amul yàlla lu mu wax noonu rek noonu lay mel lay sa déet bi amaaniikum seen mébét yi waaw seen foog naa jort naa defe naa yi wala du caagan amaan ahli kitaab yi waaw oh, se la nga xam ne moom lay mébét ñooñ téere ñooñ yahud ak ñooñ nasaraan waaw lañuy ñuy te antag lu yàlla du jëriñ de man di amal képp ko jëf su an lu ñaaw yóoj sa dees na ko fay de ahankay hmm? alquran moo neex wax seetal ci tawraata dafa ñëwoon ne man zaraa shara ah na daama tawraata loolu moo fa ñëwoon képp ku bey rajo bi sonnalu leen ah yéen ngi dégg ci tawraata dafa ñëwoon man zaraa man zaraa shara xasada nadaama képp ku béy musiba nga béy nga góob ak rëccu ah? képp ku béy ah? lu lu yiw nga góob ak jàmm alquran daal di ñëw moom seetal ni mu waxee man ya amal su an yujza bihi ah? képp koo xam ne jëf na la mu jëf la mu doon loolu lañ koy fay rek boo jëfee lu bon ñu fay la lu bon walla yajid du am du fekk lahu di ko ñeel min duni laay walis yàlla waliyan wéeruwaay wala nasen du càggan ndimbal wa man ya amal képp ku jëf mi na saaliyaati ci lu baax nag góor ak jigéen a fa yem de aljana ni fa góor di duggee aljana noon la fa jigéen di duggee safara ni fa góor di duggee safara noonu la fa jigéen di duggee kon yàlla jëf la gis gisul ko jëf de waaw ah, man amal képp ku jëf mi na saalaat ci lu baax yi min zakarin bu dee góor aw unsaa wala muy jigéen te huwa booba moom booba moom góor góogale wala booba moom jigéen góogale mu'minun aji gëm la fa ulaayka ñooñu du nañu tàbbi aljana ta aljana walaa yuslawuna deefu leen tooñ naqiiran waaw lu toll ni mees bu tuuti boobale ah mooy tafit du xam ngeen tafit boo xoolee boo xoolee tàndoor ma saal ba ah xóot xóot boobale da nga gis benn mees bu tuuti bu ci jaar ni mu tuutee ak ni mu xeeboo boo koy lekk da koy sànni nee na lu lu mel noonu boo ko jëfee du lu baax yàlla fay la ko boo ko jëfee ci lu bonit yàlla daal la ko fay rek am na lu ñu tuddee tafit am na lu ñu dee mees am na lu ñu tuddee njarweñ loolu yëpp dinañ ko jàng ci biir téere bi wa man astanu kenn gënu ta rafet diinan Euh, jaaruwaay diinan ak ak baax diinan waaw ak topp man ci koo xam ne aslama dafa jébbal wàccowu moom ji lillaay ñeel yàlla foofu fekk moom mof sunu aji def lu rafet la dugg ci diina tey rafetal yàlla nag yéen gënu laa baax ci diina wa tabaate mu topp millata ibrahim ngir yonent yàlla ibrahim xanifan yonent yàlla ibrahim mi nga xam ne dafa ruugu jengul jëm càmmoñ jengul jëm càmm ndeyjoor moom dafa sëpp rek yoonu yàlla wattaxadallahu ibrahima xalila yàlla day téye na seydina ibrahima muy xaritam waaw ana lan ma andi baat boobale yonent yàlla ibrahima réewam bekkoor dafa nekkoon bekkoor bu metti waaw réew ma amul woon dara muy yónnee ca réewu masra ca réewu égypte ñu koy jëndal dund këram fala la ñëpp doon lekkee ndekki këram fa la ñëpp doon lekke añ këram fala la ñëpp doon lekkee reer ah Ah, miskin yëpp ñu ngi kontaan yéeguñu xiifu ndékki yéguñu xiifu añ yéguñu xiifu reer ñëpp dëpp nañ seeni cin ibrahima yàlla dogal benn yoon mu daal di yebal nag réewu égypte te xaritam nga ngir mu jaay ko ah, ngir mu jaay ko aw dund ngir mu jaay ko wuli kii sigi domba se ba fekk ni lamay taa lame ka xam ne wuli kii ah, loolu amee mu yónnee ca xaritam ba xaritam ba ne ko ah moom ibrahima day jaaxal na ma man li ma koy jaay ni mu bëree ah moom ay fan rek mu daal ñëwaat ah Ibrahima day waxul li muy def de ah ñu mu yónni ñu ne ko ah Ibrahima day yër na yër ma dem toll na ci ne du lekk bàyyi nit ñi de du lekk mukk di bàyyi doome aadama yi ah, moom day mi ngi samp nam di togg ndékki añ ak reer di ko jox miskini waa ji ne Ibrahima nitu ngistal la man mun naa ko jaay li muy dundee wala di waaye di ko jox nag li muy jox doome aadama yi loolu man du ma ci dal ndeysaan gëléem yaa ngi ñibbi si dara nekkul ci biir ba ñëwee ba jegeñ dëkk ba ñu xam ne boo ko miskin yi gisee seen yaakaar tas ñu wàccee saako ya saako yëpp ñu def ko suuf ba mu fees tepp waaw xam nga suuf dafa diis gëléem yaa ngi ko yenn waaye mu mujj nu mënuñoo dox sax waaw ba ñu ñëwee Ibrahima daal leen gis daal leen dalal miskin yaa ngi tëb miskin yaa ngi fecc ni miskin yaa ngi ree ndax gëléem yi ñëw nañ léegi ñu reggaat ñu ne Ibrahim bi yoon de musiba am na waa ji day nangu ñoo jox dara li nga gis gëléem yi yenu nii aa ah, du dund de waaye suuf la de ñun ñoo ko le ngir bañ a tas yaakaaru jéem yi ibrahima dugg ci néeg bi ndey sàndaar ji tëju mi ngi ñaan yàlla e yàlla yow yàlla man de mbindeef dong laa ñii ay mbindeef lañu yow yàlla say mbindeef yaakaar nañ seen morom mbindeef yow yàlla bul tas seen yaakaar li li li li na lool li yërëm na lool yow yàlla man sa jaam laa ñii say jaam lañu say jaam lay yaakaar nañ sa jaam yow yàlla bul tas say yaakaari jaam ci sa jaam ji de mooy ibrahim ibrahima nekk ci néeg ba mi ngi tëju munta génn mu ngi xalaat lan lay wax soxnaam te mooy yaay saarata waaw nee nañ mooy doon yaayu mooy mooy ki juróon isxaqa mu daa mu daa na ah ibrahima day yàgg ne tey ubbiwul te miskin yaa ngi fi taxawal man ma dem ubbi mu daay dem ubbi saaku ya saaku ya suuf moo ca nekkoon waaye bu ko ubbee bii mu fekk ci ay seelu ndawal yu wow yi mu fekk ca dugub yi mu fekk ca ah yi mu fekk ca ki eh, ñebbe waaw waaw lii mu fekk ca mboq waaw yi mu fekk ca bele lii mu fekk ci lors mbuus bu mu ubbi rek mu daal di fekk dund goo xam ne mu daal di ree ne ah suñu waaja de yàgg na yàgg naa yebal ak dund ci ñun waaye bii yoon li mu yebal bari na lool seydna ibrahima dégg nag miskin yaa ngi ree di xaqataay waaw mi ngi dégg ñu ngi rus ñu rusi waaw ñu ngi rusi rek waaw yàpp baa ngi def con con waaw xam nga lii nag bu ko miskin di dégg xolan dafay neex ah ibrahima daal di génn ne lu xew ah soxnaam ne ko ah bi yoon lay sa xarit bi li mu la yónnee ah duunoon na mu ne wallahi lay sa xalili bi masra walakin na xalili fi sama du sama xarit ba nekk réew misra moo ma yónnee lii waaye sama xarit bi nekk ci asamaan moo ma ko yónnee di rabbana subhaanahu wa taala yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar yaa rabbi yaa rabbi yàllaahu yàlla yàlla yàlla jokk suñu yaakaar moo tax nee na wattaxadallaahu yàlla day jàpp na ibrahim xalilan muy soppeem waa walillaahi muy xaritam walillaahi aji sax la ñeel yàlla maa fi samaawaat li ci samaani ñaar wa maa fi al-ard ak li kaana allaahu yàlla nekk na te du dañ mukk di aji wër ndombo bi waaw miraasa ah walla ah waaw yastaftuunaka ñu ngi lay sàkkoo ubbee ñu ngi lay sàkkoo laaj nga defal leen ifta fi nisaa ci jigéen a ah, qul waxal allah yàlla de yuftiku moo leen di ubbee fii na ci ñoom man dañ ma yónni donc du man maay du man maa yore diina ji wama ak la nga xam ne yut laa des na ko jàng aleykum ci yéen fil kitaabi ci téere bi fii yataamal nisaa ci jigéen yi nga xam ne ay jirim lañu seen baay dee nañu waaw ah, te mu nekk fii ci kër gi nga bañ keneen takk ko yàq alalam mën nga koo takk ngir sàmmal ko alalam lool mën na am wala wala boo yóbbee alalam gi dana dana seey wala alalam gi danañ ko faagaagal wala bu waa ji lekkee alalam ba mu jeex mën na koo dàq génnee ah, ña nga xam ne laa tuutu na wul na joxe defu leen joxe maa kuti ba la nga xam ne bindeef na lahum lahul na ñeel leen wa taxaw bu na te ngeen xemam an tan ki won na ngeen takk leen ah yàlla nee na aayul may naa leen ngeen def loola le mm, wal mustalafin ak ña nga xam ne dañ leen a néewal doole mënal wil daan ak gone yi wa an taqumu li fi nekk mooy jullit bu gëmee yàlla gëm seydina muhammad mooy taxawam bu amee daal na nekk lil yataama ñeel dimbala jéem yi bil xisti ànd ak njub gu mat sëkk nag bil xisti ci jub kocc wa maa tafalu lépp lu ngeen def min xayrin ci jirim yu jigéen yooyu la ak ñu néew doole ci gone fa inna allah naka yàlla day yàlla ji xam la bii ca jëf ja la mu def waaw yàlla nee na wa in imraatun dem jigéen xaafat ragal na min baaliha ci jëkkëram nusuusan jëkkër ja foñ aw iraadan wala du mooy bàyyi ko fala junaaha déet bàkkaat alima ci ñoom ñaar an yusliha ñu yéwénoo waaw yow jigéen nga dem nga ba munatoo munatoo lu aju ci sëy waaw dem nga ba tollu foo xam ne liggéeyu kër munatoo ko dem nga ba foo xam ne sa jëkkër bu la aajoo waaw dootoo ko mën jëriñati te waaw te amul alal ngir denc ñeneen waaw ah, nga yewee nag moom nag muy sa càmmañ ngay ngay ngay jigéenam waaw ah, yàlla nee na dara nekk ci balaa juna alayhim an yusla bi ñu yeweenoo bay numaa seen diggante sulhan ak yeweenoo waaw ah, sulhu yewene googu xayrun moo gën mu dem nga dem seen doom yi tasaaroo waaw yàqute daal di am ci kër gi yàlla nee na wa uhdirat eh, teewaleef na an na su bakkan asuxa ak cokoto rek doomi aadama naa gën a yokk rek femme voiture villa argent naa am kër gu rafet a jongoma boo xam ne dafa njegemaare naa am ay chèque ci banque bi hmm? naa am oto goo xam ne ku ma romb mu ne cey seetal oto gi mu yore tey waaw ngay dolleeku te doo joxe waaw nga yore ay million te doo jëf jëfu million nga yore ay milliard doo jëf ay jëfu milliard waaw nga mun a baaxe doomi aadama yi doo leen baaxe nga mun a dimbale doo te doo mun a te doo dimbale waaye wa in tustu wa tuxsinu bu ngeen yi bu ngeen rafetalee wa tattaqu ngeen ragal yàlla fa inna allah naka yàlla day kaane nekk na xabiran di aji dañ kumba bi ma taamaloon ci lu ngeen di jëf yàlla nee na jigéen nag bu demee ba toll foo xam ne mooy tolluwaay gi ah yàlla nee na bu ñu doonee benn ñaar ñetti ci kër gi xool moom yàllaa ko moom foog am fu mu ko yóbbu rek walan tastati du ngeen attal mukk an taadilu ba ngeen maando bàyyi na nisaay diggante jigéen ñi nit ki dana jur ay doomam sax nga gis taawam gënal ko waaw bu taawam bu taawam bu taawam rafet rek mu raf caatam moo ko dàqal caatam bu rafee rek mu raf te moom moo bokk sukk jur leen ñoom ñëpp bu joxee xale yëpp ñu lekk ba mu regg am lu mu dencaat bàyyi ba xale yëpp fooy mu daal di woo kenn ne ko lekkali te nga fomp sa gémmiñ bul ko wax kenn de te moom moo bokk sukk jur leen de waa xol yàlla moo koy wëlbati diggante ay loxoom nu mu ko neex la koy def wala xarastum doonte demoon ngeen be xër waaw mun ko du yomb waaye na falaata milu bu leen jeng kulal mali bépp njeng nañu bokk lekk be regg nañ bokk naan ba mandi nañ bokk woddu eh, bu ñu rafle nañ bokk faju fatazaruha ngeen bàyyi ko kal mu àllaqa mu mel ni naka seetu wala naka portele bu ñu aj rek nit a ngi nii fekk du mun mënuta wax mënuta jóge foofale loolu gënul wa in tuslihu bu ngeen yéwénelee wa tattaqu ngeen ragal yàlla fa inna allah naka yàlla dee kaana nekk na rafoon di jéggalaat ko nga ko mën di yërëmaa toon alamin dégg nañ ko kon waaw lii baax na waaye ñu doon nelaw yëpp yeewu nañu. <laughs> Alfayda FM. alhamdulilah rabbil alamin yàlla na yàlla fay yàlla. waaw jigéen nag ah, lu doy waar la. jigéen lu yéeme la gisoo yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam daana wax yaay Aïcha waaw ne ko boo meree man danaa ko xam boo kontaanee danaa ko xam mu ne ko boo kontaanee da ngay naan wallazi ba asa muhammadan bil haqqi dégg nga lii ah kontaanee buy waat ci yàlla bi yónni muhammad lay lay woo dafay ne wallazi baasa muhammadan bil xaqi wallahi giñ naa ci yàlla mi yónni muhammad ci dëgg mu ne ko bu ma meree nag lan laay wax mu ne da ngay naan wallazi baasa ibrahima bil xaqi giñ naa ci yàlla mi yónnoon ibrahima nga ne ma ñukk dem jëli ibrahim kon dégg nañu kàddu gi jigéen bëri na solo lool dégg nañ ko kon yàlla na yàlla dimbali ñu yaa rabbi boo leen toppee ci seen anam diis nañu mbir lool waaye ñu xam ne laa xayra min hunna wala budda min hunna boo leen bàyyee ah musiba daal di ñëw boo leen téye ba tey coono daal di safaray lolli boo ko jegañee nga tàng boo ko soree nga liw yàlla nee na wa in yatafaraqaa bu ñu teqalikoo nag yurnillaa yàlla dana oom kullan kenn ku nekk min saatihi ci ngëneel yamu yore ci mbaax yamu yore eh, ca teraanga yi yaatu yamu yore wa kaana allah yàlla nekk na waasaan di aji yaatu le hakiman di aji xereñ alfayda fm walillaahi aji nekk la ñeel yàlla maa fi sama li juróom-ñaar la ak li ci suuf lépp wala xat ci dëgg-dëgg day wasay naa denkoon denk na dénkoon nañu dénk nañu alladina ña nga xam ne kitaaba joxe joxe na leen téere te mooy yahudi ak nasaraani min qablikum balaa ngeen di ñëw wa iyaakum ak yéen ñi lan la mooy anni taqullaa leen yàlla wa in takfuru bu ngeen weddee fa inna aji sax li lillaa ñeel yàlla maa fi sama li ci asamaan yi wa maa fi l ard ak li ci suuf si wa kaana allah yàlla nekk na te du dañ xan yéen di aji woomle hamidan yàlla mooy ko jagoo cant wa lillaahi aji sax la ñeel yàlla maa fi sama li ci wa maa fil ñi li ci suuf doy na képp billaa ci yàlla wakilan ci wéeruwaay hmm? yàlla mooy kaafi hmm? in bu sooboon yàlla yusifkum mu demee leen yéen ñëpp ayyuhan naasu yéen doomi aadama bu neexoon yàlla yéen ñëpp ngeen dem wa yaati mu dikkee bi aaxir na ci ñeneen ñu leen gën ci melo ñu leen ngeen ci defeen wa kaana yàlla nekk na qadiran li aji mun alash alash ala zalika ci loolu hmm? ngeen bàyyi ci xel yaa ngi nekk ci yooni tukki nga ñëw ci bërëb boo xam ne xamoo fa kenn te nga bëgg ña nga bàyyi sa réew nga am yaay ci àll bi waaye nga am yaay nga am nga am baay ci àll bi bëgg nga am nijaay ci àll bi bëgg nga am bàjjen ci àll bi boo demee ba jubloog dëkk boobale na nga aaya nanga ko jàng in yasha yuzukum wayaati wayaati bi ayyuhan naas wayaati bi xalqin wayaati bi axarina ñaari ay yëpp wàcc nañu ah nga di ko kaana allah ala kulli shay'in qadiran yàlla dëkk boobu dina la fa may baay du xam ngeen loolu waxuma may la baay bu la fa jur de waaye ku la may baay goo xam ne daf lay taxaw sa baay ni lay taxawoo may la yaay boo xam ne daf lay taxaw ni la sa yaay taxawoo te boo duggee ci dëkk amoo kilifa ah baaxul de hmm, waaw man man man koo xam ne nekk na yuridu di bëgg a sawaaba dunya yoolu àddina fa indallah aji nekk la fa yàlla sawaaba dunya yoolu àddina wal axira ak yàlla ñaar yëpp la yor ndeysaan yàlla mooy ki baax seetal ku bëgg àddina yàlla ne na du àddina yore de maa ngi yoraale àllaaxira ñaal ma ma jox la wa kaana yàlla nekk na samen di déggaakoon basen di gisaakoon yaa ayoon naasu ey yaa ayu amanu ey yéen ñi gëm yàlla xam na moo njëkk amul tàmbali te mooy mujj amul jeextal kuunu nekk leen xawaa mi ne di waay farlu xawaa mi di waay dogu xawaa mi di waay dolli laxasaayu bil xiisti te ngeen ngeen taxaw bil xiisti ci kocc rek jàll shuhada ngeen di waay seede lillaahi ñeel yàlla na ngeen seede ngir yàlla walaw donte ala anfusikum seen bopp la nekk de xulil xaq walaw kaana muran xulil xaq walaw kaana ala nafsika dëgg moom na ko wax donte dafa wex xatt dëgg moom na ko wax donte sa kaw lay tàbbi rek awil waalidayni wala ñaari wayjur yi wala xew bi nag mbokk jegeñaale yi bul seet nit ki seetal yàlla in yakun bu ñu nekkee it ran yéen di waay woomle aw faq yéen wala di waay ñàkk fa la yàlla aw laa moo gën a yey moo gën a yell Uh, topp ci jaalu bi himaa ci ñoom ñaar wala tatew bu leen topp alxawa seen bànneexu bakkan topp bànneexu bakkan alak nañu bëri de seetal ndox mu neex nga bàyyi ko fi nga jël biteelu sàngara ah waaw xam nga danga nga daadaa de waaw nga bàyyi fii ci ngom nga bàyyi fi tàngal nga bàyyi fi mbiskit nga daal di jël ay peyon di ko lok ah xam nga ne yaa ngi def loo xam ne xamoo ko ñii jël ay pikir di pikir seen bopp dorog ñii jël ay Euh, ki ay yamba ñuy jël ay bax ay lox di ko ko raab ci kayit yi di ko di ko tox di ko mooy mooy danga nga ah da ngay jékki-jékki sa cuukeel bi du xam ngeen cuukeel cuukeel mooy ndong fi mujj ci ndong dafay mujj di cuuk cuuki rek bu boobaa ndof dikk na dootoo wérati mukk ada andi dum de mooy cuukeel fii mooy jë ci kanam mooy jë ci ginnaaw mooy cuukeel kero boo yégee ne yaa ngi tox yàmbaa sa cuukeel bi mujj na di cuuk cuuki jeex na dalal xel mënatul ci yow da dof nga da nga sànni sa malaan rek lii baaxul ah te seetal la doomi aadama day tànn na lépp lu yàlla jox na ko lu baax mu day tànn lu bon na ngeen bu leen bu leen bokk ci mbooloo moom mukk bu leen topp seen bànneexu bakkani an taadilu ba ngeen bañ a maandu wa intalu bu ngeen wengee aw turid wala ngeen du mooyu dem leen fa inna laa nag yàlla daykaane nekk na xabiran di aji dañ kumpa bi maa taamal ci li ngeen di jëf yaa ayyuhal dina amul yéen ñu gëm yàlla xam na yàlla mooy njëlbeen bu amul tàmbali ca cay yàlla mooy aji des te amul jeextal ba faw aaminu gëm leen billaahi ci yàlla wa rasuulihi ah te ngeen gëm seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mooy xayru xalqillaahi ah muhammad mooy koo xam ne jigéen musta jur lu mel ni moom jigéen dootul jur lu mel ni moom boo demee ci raaya xaadimu rasul nee na boo déggee nit di jaayu ci benn kaasu ndox bu fees da nga nekkul ceetu géej dégg ngeen kàddu gi benn kaas fu ci nit di ndamoo dangaa jegañul géej boo jegañee géej géej moo gën a fees ah moom sëñ Tuubaa mu dellu ca raa iyamba ne boo déggee ñu naan gattax gi gattax gi dafa njool dafa nekk ci ron ay garab ah gattax bu jegeñee garab njoolaam dootul feeñati kon mbir maa ngi noonu la Muhammad dong mooy li bàyyi waxoon cheikh islaam nee na nee na baabullahi wa xaasinu fadlihi Muhammad day mooy buntu yàlla ga te mooy ki yore mangasinu yàlla ba képp ku jaaru ci Muhammad doo am de képp ku jaaru ci Muhammad doo yegg yal na yàlla fay suñu mag ñu baax ñooñale ne kon mbir maa ngi noonu le waaw uh, uh-huh. wal kitaabi wal kitaabi ngeen topp téere ngeen gëm téere bi allazi ba nga xam ne nazala wàccee na ko dogit par dogit ala rasulihi ci kaw yonante bi ci ñaar fukki at ak juróom mu faatu at alquran jeex mu faatu wal kitaabi gëm leen téere allati allazi téere ba nga xam ne anzala yàlla wàccee woon na ko min qablu balaa yéen te mooy tawraata injil zabur wa man yakfur képp ko weddi billaahi ci yàlla wara wa malaykati yi weddi malayka yi wa kutubi yi ak téere yi yi téeméer eh, malayka yi nag la kenn xamul nañu toll de wa maa ya'lamu junuuda la illaa huwa du loolu la alquran wax benn taw bu jóge asamaan sax malayka moo koy gunge ba ko ci kaw suuf mbokk yi malayka bëri na taw ni mu bëre taw bu jóge asamaan malayka moo koy gunge ba ko ci kaw suuf mu dem jox yàlla contrat taw ba nga ma dénkoon wàcce naa ko kon kan moo xam ne malayka toll wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa huwa ngelaw bi malayka yee ko yore ah gàncax gi malayka yee ko yore moo tax ndeysaan kara ba seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam di rañaan ba mu ñëwee bay xuus asamaani ndeysaan malayka yëpp bu koo gis teg ko bët ndax boo gisee yonantu we sa garaat dafay yokk waaw ah, boo gisee yonantu sa garaat dafay yokkaat waaw ah, boo nekkoon première classe mun nga nekk caporal boo nekkoon caporal mun nga nekk sergent da ngay tëb ay maqaama noonu rek Ah, ah, ngay yëg rek keroog moo tax jibril ah, mu ne nag muhammad ah bàyyi ma ma sol sama teni komba wallaay bu ma bu ma dellee suul sama dooley malayka ah jaar fi dana jafañ de alfayda fm allamahu shadidul quwa jibril daal di ko xàllal moo tax boo demee ci lugatu tayyi wala bani xasr ay arab la comme arab yi dañoo am xeet ñoom tamit boo demee ci pël yi ah am na pël ñu tuddee haalpulaar fuutankoobe ah wala tooroobe am na ñu tuddee ay xaaboobe am na ñu tuddee ay gaabunke ay mbis mbis naabe nduura naabe njengel wala li yëpp du ay xeeti pël ak ñooñu bundu naabe maasinankoobe am na pël yi ñu tuddee bororo moo ñu nekk Niger te góor ñu di léttu am na pël yi ñu tuddee aw na ñu nekk Ghana naka na boo ñëwee ci wolof tamit am na wala nga ñëw ci séeréer am na ay siin siin saalum saalum ndutt morolan noon ñëw mi ah, ah ñi ñëpp ñoom baato ñi ñëpp am na ci biir séeréer yi boo ñëwee ci wolof yi tamit noonu kajoor joor joor yi waaw saalum saalum yi ci biir saalum tamit am na ñeneen ñu ñu tuddee ay faana xoja ñoom ñooy ñoom ñooy naan faa gëbb ñoom duñu naan demaa bëgg de faa gëbb la ñuy wax ñooñu balaa ñuy wax ñu ne hay la ñoo ñu soog a wax <laughs> maa ngi jéggal dama bëgg xel yi del siwaat ngir ngeen mën a déggaat li may waxaat kon dégg nañu ko kon dafa am ci arab yi tamit ay xeet am na ñu ñu tuddee himyar himyar ñu ngi dëkk ci diwaanu yaman am na ñu tuddee euh, bani tayy am na ñu tuddee jurhum ruzaa am na ñu tuddee mayin am na ñu tuddee bëri nañu waaye turi arab dëgg-dëgg mi ngi bawoo ci waa ji ñu tuddee Yaarub bun Qaxtaan kooku mooy maamu arab yi ah ilo yàlla ge ni mu doone maamu pël yi wala du ilo yàlla ah, <laughs> maamu arab yi mooy Yaarub bun Qaxtaan ñoom bu ñu jàngee naxwu arab la ñuy làkk bu ñu jàngul naxwil arab la ñuy làkk rek waaw ñu kon ñu ngi dégg kon mbir maa ngi noonu la waaw kon ñoom seen làkk dëgg-dëgg allama mooy xàll na walla màndarkal na ko gisoo alam mooy drapeau alamul balat làkk arab dafa riis allamahu xàllal na ko yow shadidul quwa borom kàttan nga te mooy seydina jibril alayhi salaam hmm, waaye du fu nekk lay fi reex na ko de euh, déedéet na ngeen ci bàyyi xel waaw man yàgg fur képp ku weddi billaay ci yàlla wa malaayka di ak malaayka yi kenn xamul nu mu toll wa kutu bi ak téere yi téeméeru téere ak ñeenti téere wàcc nañu rusul yi ak yonent yi lan biyaa yi doon nañ téeméeri junni ñaar fukki junni ak ñeenti junni ah wal yawmil axir daal di gëm bésu àllaaxira waaw ah, waxat ci dëgg-dëgg day képp ku gëmul loolu faqad dalla sànku na képp ku weddi loolu faqad dalla sànku na wa man yàq fukk weddi ci billaahi ci yàlla wa malaayikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil axir faqad ci dëgg-dëgg dalla sànku na dalaalan di bàyyi dan njub inna lazina amanu ña xam ne gëmoon nañu ña xam ne Muusa ba mu dikkee su ma kafaru topp ñu weddi ba mu demee su ma amunu topp ñu gëm yonte yàlla Isaa su ma kafaru topp ñu weddi ba mu demee su ma daalu topp ñu dollee ko kufran ak weddi ci Seydina Muhammad a ah, lam yakunillaahu yàlla nekkul mukk li yaxfira lahum di jégal ñooñale wala du caagan li yahdiyahum nga gindi leen sabilan yoon wa bashir na nga bégal al na naafeqi <laughs> lii diiju la moom la ñu tudde taxakkum ah arab moom yu tuddee taxakkum di ree nit bashir na nga bëggal naafeq yi naafeq lu ñu koy bëggal ah mooy bi annaloom aji nekk la ñeel leen azabun mbugal aliman gu métti de allazina ña nga xam ne yattaxizuna dañuy jàpp alkaafina yéeféer yi ah, awliya ay ndend min dunil muminina walis jullit yi jullit mun lii yéeféer mun lii nga jox ko yéeféer bi bàyyi jullit bi ay yabtax la ndax da ngeen di fàggu indowum fa ñoom al izzata tedda nga fa innal izzata naka tedda naka doole naka manoore naka ndam jamian lépp lillaay yàlla yàlla moo ko cëroo waxat ci dëgg-dëgg nazala yàlla wàcce na benn par benn aleykum ci yéen fil kitaabi ci téere gi boo toogee béréb ñuy sabote alquran wala sabote yonante yi wala sabote nitu yàlla yi na nga jóg dem bul toog foofale ah lii maa ngi fii jaaral dara wallahi buñ ko bàyyiwul du baax de diinay lislaam kenn waru ko fooyee am na ay dóorkati musique bu ñuy tëgg seen musique laa ilaha illallah muhammad rasulullah moom la ñuy tëgg di fecc ay jigéen sol yu gàtt yu bon di tëbaka dal mujj gu ñaaw dong lay jur dañoo foog ne mujj gu ñaaw nag mooy nga dugg oto rek oto ba tàkk nga dee kon mu neex de mujj gu ñaaw alal gi nga am yëpp da nga ko fajoo te doo wér li sa njaboot waroon a donn yëpp nga fajoo ko kër yi nga naroon a bàyyi ñu donn ko kër yooyu yëpp nga jaay ko oto yi nga waroon a bàyyi sa gannaaw sa doom donn ko lépp nga jaay ko fajoo ko te doo wér bés bi ngay dee dañuy cotiser sax wuti la oto bu la dégg nañ kàddu di woy ay nitu yàlla lu toll ni sëriñ Touba xaadimu rasuul koo xam ne génne nañ ko réew mi ñaata at juróom-ñaar at ba juróom-ñetti at bëgg a jegeñ mu ñëw ñu yóbbuwaat gànnaar yàlla rek la gëmoon yàlla rek la xamoon kooku dem di ko wéy ci ay musique ay góor ak jigéen jàkkaarlu di pàkkar ñi xam nga seen mujj na ñaaw sëñ Touba ni mu dëgëroon ci yàlla tubaab yi ku jàngoon tuuti rek ñu daal la def commis embauché la sëñ Touba ku mokkal alquran mu daal la may fas boo fas bariwul ci réew mi ku mokkal alquran bind ko ba mu gis ko mu mu lay tuur lat ko lañ ci kawam teg ko ci kaw lal bi teg ko ci kaw lal bi daal di la may jabar booba jigéen am ko yombul day takk loxo da ngay takk sagar ci loxo jigéen lii moo doon dund xaadima rasul ñuy woy kooku nag ay nit di ko bànneexoo nekk ci mbedd bi teg ay baaful xam nga li musiba la di woy cheikhul islaam ay gone di ci fecc di ci tëb di dal di woy alhaji malik ay nit di tëb di fecc di dal di woy maam alaaji malik di woy ay ay ayatal kursi di jàng ay faatiya di jàng qul huwa allahu ay musique di dóor lii balaa la de alquran du fayekaay de dégg ngeen lii may wax alfayda fm bu ñuy fo seen po nañu po seen po te génn ci téere yàlla gi dëgg la ñun ñëpp jullit lañu waaye maa ngi leen di laaxe biir ngir yàlla maa ngi leen di laaxe biir lillaahi wali rasuli téere bi yàlla bi nitu yàlla yooyu wut alal bu mu leen tax a yóbbu ñuy ñuy tudd ñooñu la ci caaxaan yi yàlla na yàlla dimbale ñu yaa rabbi seeta sëñ Tuuba nee nañu am na ñu ko seeti woon gànnaar ñu ne waaye boo fekkee sëñ Tuuba ci biir gànnaar bi li mu taalif ay ci ay tere jóor ko lekk bu doy nekk fa woon waaye sëñ Tuuba buy dox nee nañ loo gaaw tànk gaaw tànk ci kaw ci suuf si mënoo ko jot mënoo ko jot mukk kon xam nga ne kii doomi aadama bu yàlla dëgëroon la ah nga seet téere bu toll nit xilaas zahab wax ci mboolem dund yonante bi te motul weer alhaji Malik def loole la xam nga kii doogloon nitu caaxaan de eh, ay doomam dooglu nitu caaxaan caaxaan yaay caaxaan sa caaxaan seetal bàyyi ana lan la wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nee na wal tajalan na hifza kitaabaka al azim karamati ila liqaayka al azim nee maa ngi lay ñaan yow yàlla sa téere bi de alquran na nga ko de sama karama man bàyyi mu doon ma koy jàng sama njaboot jàng ko ana bàyyi kan la jurte mokkalul alquran Medina dafa mel nii na Baye boo demee dafa mel ni mokkal alquran dafa mel ni nga mokkal fatiha da gis xale bu jigéen boo xam ne mi ngi waas jënam mi ngi jàng ay isib ci alquran nga gis xale bu tuuti mi ngi jël kayitam mi ngi desin mi ngi fo mi ngi jàng mu ngi mi ngi jàng ay isib moo tax yàlla nangul na ko loolu yàlla na ko yàlla fa yaa rabbi na man cheikh al islam mu ne shawqi wa hubbi fihi laash fihi siwaa nuzuli waxtihaali fii mu ne maa ngi ñaan yàlla man cheikh al islaam yow yàlla sama mbëggeel ak sama cofeel du dakk mukk ci alquran li ma lay ñaan yow yàlla nga defal ma alquran muy sama escalier bu ma yéegee ba sës rek ma wàccaat yéegaal rek ilaa bekara may dajeg yoon qiyaamati alfayda fm waaw boo seetee Baye ama Dem Sokone ñoom moom ak njabootam nga seet Baye Alaaji Omar Ndaw moom ak njabootam nga xam nga ñii caaxaan mosuñoo caaxaanuñ kenn nit jóge fële bëgg a exploiter doomi aadama yi wul ay instrument di tëgg ah nañu xalaat bés na dikk ñu tëdd seen kawlal ñoom dong malakul moo te daal di leen dikkee tey ñu génn kër gi de te bu kerogee ah danañ xam ne tooñoon nañ de kon bi maa ngi noonu le lu mu teg nee na waxat dëgg-dëgg nasal naa wàcce nañ benn par benn aleykum ci yéen fil kitaabi ci téere bi an li fi ne isa isa samitum bu ngeen déggee ayatillahi téere bi yàlla bi yëg faru bihaa da ca wax lu ca nekkul ah, wa yustazaw ah, di mbelle di kokkoli di diiju waaw di di caaxaan bi haa ci téereg yàlla gi fala taqodu bu leen jekki maahum ànd ak ñoom xataa yaruudu bete bu ñu xuusee fi hadisin xayri ci beneen waxtaan bu ngeen toogee ak ñoom yeney bokk bàkkaat ga innakum naka yéen isan konde mislakum yeney benn de inna allah naka yàlla jaamil munaafiqiin kuy dajale dinaa feqii la wal kaafi nag yéeféeri fi naari jahannam ca saxey jahannama dégg ngeen li ci yàlla teg de Hmm? allazina ña nga xam ne yatarabbasuuna fu ñu nekk rek ñu ngi nëgandiko fu ñu nekk dañuy nëgandiko foo leen fekk rek ñu ngi nëgandiko bikum ci yéen a ah, ndax ngeen am musiba am bala fa in kaana ndem nekk na lakum di leen ñeel fatun ak ubbeeku min allaay fa yàlla xaalu ñu ne ah alam na ko ndax nekku ñun maakum di ànd ak yéen ah may leen ñu ci affaire bi waaye ñun ak yéen a àndoon ñoo desoon ci biir di xaar jigéen ñi di aar jigéen ñi wa in kaana ndem nekk na lil kaafir na ñeel yéeféri nasibun cër bu fekkee yéeféri nag ñoo gañe ñu dem ci yéeféri naan ah yéen yéeféri ñu ñoo fi nekkoon den doon sàmm seen gannaaw de xaalu ñu ne alam alam nastahwiz ndax ñun moolu ndax ñun nekkuñu woon di garde waaw ndax nekkuñu woon di saytu aleykum ci yéen seen gannaaw wa nam naakum ñu leen di tere minal mu'minina ci julli balaa ñu leen di laal wallaahu yàlla yaxkumu yàlla na dana bay baynoon seen diggante ah, yowmal qiyaamati bésu yowmal qiyaamati wala yajalallaa yàlla du def mukk lil kaafina ñeel yéefe sabilan yoon alal mu'minin ci way gëm yi fii na dinaa fi leeral dara nga nekk ak benn catholique yéen ay liggéey wala nga nekk benn chrétien yéen ay liggéey wala benn yahud ah, nga am doom nag doom ba di sëy nga ne bàyyi la naa la ko eh, sëy ga du wér kéefir mun te nekk kilifa yi jullit mun nga ko woon ne ko damay may sama doom mu ñëw teew waaye nag catholique bi laa bàyyi la sama doom eh, daganul kéeféer mënta nekk kilifay jullit dégg ngeen solo sa doonte bàyyi yéeféer la munta maye doomam buy jullit walan yajalallaahu yàlla du def mukk sabilan ak yoon lil kaafina di ñeel yéeféer almu'minin ci way gëmi innal munaafiqina naka naafeq yi yu xaadi una allaha ñu ngay karabaane yàlla wum waxuwa naka moom yàlla xaadi un dana delloo seen karabaane googu ci ñoom ñu ngay war wuruj ga ci ñoom lay dellu wa iza qaamu ndeem jóg nañu ila salaati jëm ci julli xaamu ñu jóg saala di way tayal naa feq dox fi ba si basoor moo ko gënal mu mu dox jëm ci jàkka ji ah daw àll ga di def li ñu tuddee footing wala lu footing ngeen koy tuddee di jaar ci wetu tali di daw di cëppi cëppi waaw moo leen di dàqal ñu dem ci jàkka ji dem julli ji wa ida xaamu ndeem jog nañu ila salaati jëm ci julli xaamu ñu jokku saala di way tayal yura una naa suñuy ngistal ci nit ñi Euh, bu ñu bu fekkee ay nit a ngi foofu ñu dal ñu daal di julli julli gu dal bu fekkee nag ay nit ñu nekkuñ fa allah ko allah ko salaamaaleykum ñu dem seen yoon hmm? wala yaskuna laa duñu tudd yàlla illaa xelen ba lu tuuti aaya gi moo taxoon euh, euh, bërëb bi balaa ñuy julli ñu zikkar lool ñetti zikkar yi ah yowmal xiyaamati noonu la du bidaa de ñu bëri daf leen di jaaxal jumaa ji balaa ñuy julli zikkar yi ñuy zikkar déedéet lu am la ci lu am la de lu nekk la gisuma ko ngay wax waaye lu nekkul la ah déedéet am na zikar bu ñuy zikar euh, bu ñu demee bay jóg ñu gaawal ko bu ñu demee ba taxaw ci sàpp bi ñu diibal ko yowmal qiyaamati noonu la bu ñu demee ba yowmal qiyaamati euh, yowma yafirul maro min axi min ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi kero kenn ku nekk sa mbir doy na la baay a ngi daw doom doom a ngi daw baay ndey a ngi daw doom doom a ngi daw ndey kero kenn talul kenn bu gee ñëpp jaaxle koo daw jëm ci mooy mu daw la ñu ne a ah, ñun julli di lan la ñuy def kon nañu toog ñu bàkk yàlla moy zikrullahi bi ñuy njëkk a def bu ñu tuddee yàlla ba tudd yàlla yàlla nag dafay suturaal xeetu Muhammad yeneen xeet yi dafay ne diw doomi diw texe dina safara la jëm ngir dafa doon jaaloo diw doomi diw texe dina safara la jëm ngir dafa doon sàcc diw doomi diw texe dina Euh, safara la jëm waaw ngir dafa doon naa fekk di ràmbaaj waaye xeetu muhammad dafa ne acca dem leen siraata ngoog du tudd bàkkaatu kenn allah akbar muhammad allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim waaw bu julli di ñëwee ci siraat nag ku daanu daanu nga ku jàll jàll nga ci biir sutura boobu waan julli dañuy gaawal laa ilaha illallah laa ilaha illallah booba tiit nañu kii jàll xamul kan la kii kii daanu xamul kan la buñ demee ba jéggi siraat nag neex bi di teeru xayru xalqillaa te mooy seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad ñëw daal di ànd ak ñoom dugg biir aljana yàlla ne kulu washrabu hanian lekk leen ngeen naan lépp duunoon na yéen ko moom yàlla nañ ci yàlla boole yaa moo tam bi maa ngoog dangay ngay sikkar sa yaram tàng waaw waaw nga soog a julli waaw mu zabza bi ne seetal ñu ngay dengi dengi bay na diggante loolu bokkuñu fee bokkuñu fii laa déet ilaa haulaay di bokk ñii wala du jaagan ilaa haulaay di bokk ca ñee ba ma ñu di laa képp yàlla denc moom falan tajida doo fekk mu sabilan ak yoon lahu di ko ñeel yaa ayyuha allazina amanu bàyyi leen ko bàyyi leen ko man bugg ma ngeen di dàq xale yi euh, saxat bi dina ko bàyyi léegi xam leen ne ñoom ñooy wuutu ëllëg euh, bàyyi leen xel ci loolu dama doon gis sama waajur amuloon benn bërëbu diina bu mu doon dem te du ma yóbbu te fekk euh, yi aw ñaari at sax waaye am na yàlla yoo xam ne dimbale na ma ci sama xel mi nga ko takk ba léegi kon na ngeen ci bàyyi xel xelit yuuru doomi aadama yi du ñu benn waaye xale yi dàq ngeen leen di dàq wàññi leen ko da nga leen di nax ak ngeen tasaare leen ci biir mag ñi gisu leen bu may jiite juma yéen temps dañuy coow ba ngeen foog ne danaa ci xutba bi loolu du ma ndax li may wax fi ma koy jëlee lu yàlla xasa def foofu la moo tax na ngeen di leen tasaare ci biir mag ñi rek ngir ñu bañ di wax rek ñun ñun taaru diina yal na yàlla dundal leen te barkeel leen doom bu nekk na nañ fekkee njëriñam yaa rabbi allahu kon yaa ayyuha alladina amanu ay yéen doomi aadama yi laa tattaxidu bu leen jàpp mook alkaafina yéeféri awliya ñuy ndend min duni mu'minin walis walis walis julli di aturidu na ndax da ngeen bëgg an tajalu ngeen def lillaay ñeel yàlla aleykum ci yéen sultaanan ak lay mu binan gu biir ak yoon ci yéen innal munaafiqiina naka a yi yàlla neen dar ñee kal lañ jëm ci safara yàlla nañ ci yàlla musal xam nga safara dafa doon ay kër doon na juróom ñetti kër am na safara su ñuy tuddee jahim am na bu ñuy tuddee jahannama am na bu ñuy dee saqar am na bu ñuy tuddee xaawiya am na bu ñuy tuddee xutama am na bu ñuy tuddee sair am na bu ñuy tuddee laza juróom-ñaari kër yaa ngi noonal ah? waaw waaye yàlla nee na naafeq daal bu dikkee yowmal qiyaamati buñ ko yóbbu jahannama buñ ko yóbbu lasa buñ ko yóbbu haawiya buñ ko yóbbu sair buñ ko yóbbu saqar buñ ko yóbbu xutama ah, fuñ ko yóbbu nag yàlla nee na nañu ubbi dernière kalba rek ñu dugal ko foofale kon xam nga ne naa fekk baaxul de ah isa hadasa kazaba ah waaw mi ngi noona le kon xadis ba fàttewu leen ñett ah, kon mbir maa ngi noona le naa fekk yàlla nañ ci yàlla musal yaa rabbi Euh, innal munaafiqiina naka naafeq yi day fii darakal asfal ñu ngi nekk ca kal bu mujj ka mina naari ci safara walan tajida doo fekk moom nasiran doo daj nasiran ak ndimbal lahum ñeel leen illa lazina taabu xanaa ñi tuub bàyyi ak naafeq wa aslahu ñu yéwénal wa atasamu ñu mooy billaahi ci yàlla wa axlasu ñu yéwénal ñu sellal ñu baaxal diinahum seen diina lillaa ñeel yàlla wa fa ulaayika ñooñu ma al ma al ñoom la yàlla di dajale julli di nag na leen wa soo yéex a yéex yu utillah yàlla dina jox al moo ne waaye gëm yi ajran pay aziman gu màgg a màgg waaw yàlla lan lay dooyee di leen mbugal mbokk yi ah allah lan la yàlla di dooy dolli dooyee di leen mbugal maa yaxolu la ana lan lan la di do lan la di def bi azabikum ci mbugal leen in shakartum bu ngeen santoon yàlla mu dolli leen wa amantum bu ngeen bu yàlla mu jàmmal leen wa kaana allah yàlla na shakiran di aji cantaakoon du xeebal jaam daraam aliman di aji xam li nga def loo ca jublu benn isib la de kon ñu dàq suñ ñaareel isib bi ah, ngeen di ma nangul sama ngant yenn jamono dinaa daw daw yu métti ngeen téye na weeri koor la bu doon sama sago la aaya bu ma dikk dinaa ci taxaw ah, ba ngeen bég lool ba ngeen xam ci lu yaatu lool lépp lu mu làcc ci fànnaay xam-xam ma def ci waaye nag ni ngeen yëgee mbir mi rek yal na yàlla dégg loo leen ko yaa te wallahi dañu ma di di ñaan yàlla guddi dañu ma di ñaan yàlla bëccëg te yow yàlla sama mbooloo mii yàlla nanga leen déggal sa téere bi yaa rabbi hmm, te incha allah yàlla dina ko def yàlla nee na laa yuhibullaahu yàlla day bëggul yàlla du bëgg hmm, yàlla yàlla soxlawul yàlla aajowul waaw ah, yàlla day ah, yitteelu ko aljahara di feeñal bi ci lu bonde di saaga wala di sabb wala di ŋàññ wala di xaxar du xam ngeen xaxar mooy jigéen buy sëyi ñu woo kenn ko xam ne ku bon ci làmmiñ la muy muy saaga njëkk yi di saaga aawa di saaga goro yi euh, loolu araam na de baaxul de yàlla bëggul loolu le feeñal lu bon daal ci làmmiñ yàlla bëgg ko waaw mi ne xawlu ci ay illaa xanaa illaa ndare man ko ne zulima tooñeef na ko ah nee woon na kenn gënut bon ñu ne ko kan kenn gënut bon ñu ne ko kan la sallallahu alayhi mu ne koo xam ne dafay saaga ndeyam ak baayam ñu ne ko eh yonent nan la nit di saaga ndeyam ak baayam ah mu ne nga tudd lu bon ci baayu jàmbur mu tudd ko ci sa baay lu bon ci ndeyu jàmbur mu tudd ko yaa saagalu sa baay waaye yaa saagalu sa ndey ah illaa ndere man koo xam zulima tooñeef na ko wa kaana allah yàlla de nekk na samen di déggaakoon li jaam yi di wax aliman di aji xamaa koon in tubdu bu ngeen feeñalee ah, xayran yiw aw tufu wala ngeen nëbbu ko aw taafu wala ngeen jéllale an soo in ci lu ñaaw fa inna allah naka yàlla kaana nekk na afuwan di jéggalaa koon xadiran di aji dogalaa koon yàlla mooy ki mun loo feeñal yàlla xam na ko loo loo loo loo nëbb moom yàlla réeréew ko inna lazina naka ña nga xam ne yakfuuna ñu ngi wedd billaay ci yàlla wa rasul di di weddi yonante yi wa yuridu nañu te ñu fu ñu toll rek an yu fariqu ñu teqale baynallaay diggante yàlla wa rasuli ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam loolu day baaxul yàlla ak bi kenn xajul seen diggante ah kon day dagana ñuy teqale diggante yooyale wa yaquluuna ñuy wax nu'minu danañu gëm ñun bi baadin ci lenn ci téere yi wan nag foog ñu weddi bi baadin ci tee ci lenn déedéet wa yuriduna fu ñu nekk ñuy nomm rek an yattaxisu ba ñu jàpp bayna zalika diggante yàlla ak yonanteem bi sabilan yoon loolu jaaduwul kon julli di nañ nekk benn ah kii tijaan la kii xaadir la kii saazeli la kii dabbaari la kii naqsabandi la kii turaabi la kii mahdi la ah, boo delloo ci faakeetu tullaab bu alhaji malik si yàlla na yàlla ci barkeem eh, tariqa seen bariwaay tudd na limam foofu de kii chia la ah ngeen chia kii chia alawiya la kii chia zeydiya la kii chia imaamiya la kii jaafariya la ah almuhim ñu ñëpp nañu doon ibadallah ixwaanan nañu doon ay jaamu yàlla rek kii ibaadu rahman la kii jamaatu falaa la lii dafa ñuy néewal doole euh, kenn ku nekk nanga nga téye neex waaye nanga fonk sa moroom nanga nga bëgg sa moroom na fullaal sa moroom li mu yore ngeen nawlewante lii mooy andi diina gu rafet am na benn waay dafa ñëw ci nitu yàlla bi mu ne ko góor gi mu ne ko waaw mu ne ko diw day buy jàpp jàppam dafay gaaw lool mu ne ko defa koo mun da ngeen kàddu bi diw dafa gaaw lool mu ne def koo mun mu del siwaat ne diw day diw day jàppam dafa yéex moom day buy jàpp mun ngaa dem dikkaat fekk parewul mu ne def koo xam kële mu ne def koo mun kële mu ne def koo xam xam nga ne kii du andi par parloo diggante doomi aadama yi de kon na ngeen def noonu le waaw liy xew ci jamono bu leen ci mos a bokk mukk def leen sëriñ si yëpp ñuy seen sëriñ ngeen def nittu yàlla yëpp ñuy seen kilifa gëm leen yàlla bu leen ko weddi gëm leen Seydina Muhammad bu leen ko weddi bu leen weddi benn góor yàlla bu leen weddi benn nitu yàlla luy doy mooy ndigal bi nga xam ne man moom laa yëkkati ci yéen wallaahi ngeen xañ ma man te jox ko nitu yàlla yi ngeen xañ ma man te jox ko góor yàlla yi wallahi moom a gënoon ngeen xañ yooyu jox ma man mm, kon na ngeen góorgóorlu baax a na ngeen bëgg ñëpp rek ulaayika ñooñu day hum ñoom ña nga xam ne dañuy def digaale di andi par parloo di aji ŋaayoo humu ñoom alkaafir na ñoo di kii yéeféeri xaqan ci dëgg wa aatat naa xaroo nañu wa aatat naa pare pare nañu lil kaafir na ñeel yéeféeri azabun bëggal goo xam ne mu leen di doy di la wallazina amanu ña xam ne gëm nañu yàlla billaahi wa rusuli ñu gëm yonante yi wala ñu fariqu te teqali wu ñu bayna hadin diggante kenn minu ci ñoom ulaayka ñooñu saw fa saw fa yéex a yéex na dana leen dikkee yàlla ujuram seen pay yi yàlla nañ ci yàlla boole wa kaana allah yàlla nekk na rafuran di jéggalaa koon rahiman di yërëmaa koon moo tax bu yàggul dara am na benn réew bu mag bu nekkoon ci Europe ah am na réew bu mag bu nekkoon ci Europe ñu ko tuddee ñu koy tuddee mooy fi président moo nekkoon maréchal Tito Yougoslavie dafa toj léegi ñi nekk ay serbe ah, ah, ah, ñu nekk ay chichan am benn jullit buy jaay sàngara yore baar di jaay sàngara ñu ne ko ah yow ngay jullit di jaay sàngara mu ne waaw man jullitu Europe laa déedéet jullit amul Europe amul Asie amul Afrique jullit daal mooy bàyyi mboolem tere yàlla yi topp mboolem digalu yàlla yi waaye islaamu Afrique li islaamu arab la li islaamu eh, Asie la déedéet bu leen nangu yooyu ci biir dina islaam waaw yasaluka mi ngi lay dana la laaj ahlul kitaab yi ñooñ téere antu nazila ci nga wàcce alim ci ñoom kitaaban téere mi na samay gu boowo ci asamaan faqat ci dëgg-dëgg sa saalu laajoon nañu Muusa ak lu gën a ngand ci loolu alayhi salaam fa qaalu ñu ne yow muusa arina won ñu yàlla jaharatan jàkk-jàkk jaharatan ci biir jaharatan gite ŋaas waaye li ñu bëggoon day seen seta di mayu leen ko seen néew doole mayu leen ko fa axasatuhum daal di leen jàpp ak saayixatu ak xaacu saayixatu euh, aw addu bu jóge asamaan bi zulmim ngir seen tooñ ya summa taxasu topp ñu ngeen jàpp al ijla ngeen jàpp aw sell jël ay wurus ak xaalis tëgg ko muy ay estati ngeen di ko jaamu min baadi maa jaatum gannaaw ba mu leen dikkee albaynaati lu yu biir waaye fa afaw naa jéggale nañu an zalika ci loolu wa atee naa dikkee nañu Muusaa sultaan ak lay mu binam ko biir wa rafaa naa yëkkati woon nañu fawqoom la leen tiim ak tuura doj ba waa bi muy saaxim ne ndëgër laay baa ngi ni bu ngeen gëmee ma teggi doj bi ngeen mucc bu ngeen gëmul ma teg leen doj bi yéen ñëpp ngeen raataloo wa qul naa waxoon nañu lahumu ñeel bani israil uduxulu tabbi leen baaba bunt bi am na ñu ne bunt baytul maqdis la am ñu la am ñu ne ariha la waaye lu mut bu lu muntu la lu munti am yàlla ne dugg leen ci dëkk bi sujjalan ngeen di waaye sujjóot waqul waqul naa ñu wax nañu lahum ñeel leen laa taadu bu leen jalgati fi sabt ci samedi waaw comme samedi mooy bésu feet bi bàyyi leen ci liggéey comme ñoom ay nappkat lañu woon dañuy ñu daal di gas ay pax aljuma samedi jën yi dugg ci dimanche ñu napp ko seetal xeetu jalgati yi wa axas naa jàpp nañ minum ci ñoom mi saaqan dëgër laay xalisan bu dëgër këkk de waaye fa bi ma nax diim ngir firi gi ñu firi mi saaqawum seen dëgër laay wa kufrim ak weddi gi ñu weddi bi aayaati laay ci ay aaya yàlla wa xatlim ak rey gi ñu rey al anbiya yonante yi bi rey xaqin fekk teguñ ko ci benn dëgg wa xawlim ak seen kàddu gañuy naan xulubunaa suñu xol xulfun dafa coccooral lii dey éléments yi boo leen dajalee moo tax yàlla na balli fi nekk taba allahu yàlla day sakk na yàlla raatale na ah, yàlla day eh, yàlla day ŋànk na aliha ah, bi kufrim ngir seen weddiya waaw ah, falaa yu'minu duñu gëm illaa xelen lu tuuti wa bi kufrim seen weddi bu jaw jéggi wa xawlim ak seen kàddu gañuy wax ala mariama Ah, ci ay mariama buxtaanan ay nar la aziman nar yu rëy am na ñuy naan bay naan isaalu doomu yoon astaghfirullah yal na yàlla musal ñu am na ñuy naan yuusuf an najjaar di joseph le charpentier nee nañ moo ëmbaloo mariama waaye déedéet isaa abdullahi la yàlla mi bindoon aadama amul ndey amul baay mu bind hawa mu jóge ci góor te jógewul jigéen mu bind ñu ñun ñu jóge ci góor jigéen moo bind isaa mu jóge ci jigéen bu ànd góor yàlla moo bind penku ak sow moo bind gànnaar ak bët saalum dégg nañ ko moo bind noor ak nawet moo bind cooroon ak lolli kon bi maa ngi noonale waaw wa qawlihim ak kàddu ga ñuy wax innaa naka ñun xatal naa rey nañu almasiha ka yàlla yónni ngir mu fomp banka bàkkaati ñoñam yi te mooy isaa ibnu mariama rasulallaahi di yonante bi yàlla bi wa maa xataluhu reyuñ isaa de déedéet seen kurwaa boobale ak kiñ daaj du isaa de jël ko takk ko seddi dënn mu mu diis gann hmm? dem defal ko ay ngemb nit ki koo fonk dem ko defal ngemb foto sa papa fekk maay de benn la sol wala foto ko booba ngemb la def doo ko def kon li ñu daaj ci croix bi lu ñaaw la lu bon la yàlla ne wa maa qataluhu reyuñ isaa wa maa salabuhu ne de yarga ko de defuñu buum ci baatam aj ko walakin waaye shubbaha ñu releef na lahum ñeel leen wa inna allazina ña nga xam ne ixtalafu ñu ngay wuute fii ci biir isaa la fii shakki ñu ngi ci sikki sàkk minu ca mbiram maalum déet di ñee solo isa min elmin benn xam-xam illa tiba zann dañuy topp njortu rek wa ma qatalu reyuñ ko yaqinan ci lu biir de isa yàgg-yàgg dina dee ndax amul ku dul dee kullu nafsin ah anal na la teg zaiqatul mawti balli fi nekk rafawullaa yàlla yëkkati na ko ilay jëm ca moom wa kaana yàlla nekk na azizan di aji doolew azizan di aji të kenn ci dara hakiman di aji xereñ wa inna min ahli kitaabi am na ci ñooñ téere ñoo xam ne duñ wa in min ahli am na ci ñooñ téere ci yahud ak nasaraan euh, illaa ndara la la yomina na danañu gëm bii ca moom xabla mawti jëkkat muy dee moo tax ñu ne isaa dina wàcc si dina dajeg mahdi waaw mahdi nag ñu ko wootee bëri na lool du ci réew mi rek de ci bitim réew sax bëri na fa waaw euh, boo demee ba Soudan am na ko fa nekkoon mi ngi wootee na moom mooy mahdi sëtam mus na nekk premier ministre foofale ñu ko tuddee saadiqul mahdi ñi ko woote ci àddina gi eh, takku na lool bëri na lool yal na yàlla teg ñu ci siraatul mustaqim yal nañu yàlla déggloo boppam wa kaana allah yàlla nekk na azizan di aji të kenn mënu ci moom dara hakiman di aji xereñ wa in min ahli kitaabi ah, am na am na ci ah, du deñ mukk waa ci ahli kitaab illaa lu dul ñoo xam ne la yu am na danañu gëm wallahi ak ngëm bii ci yàlla bii ci isaa qabla mawti jëkkat faatoom wa yowmal qiyaama li bésu pénciit yekkoonu dana nekk moom isa shahidan di aji seede alim ca ñoom waaye fa bi zulmin ngir ga tooñaa ngir tooñ min allazina haadu ña nga xam ne dañoo ne ay yahud lañu xarab naa la ñu araamale alim ca ñoom tayyibaat yu teey yu neex yépp uhilat yoo xam ne danga ne lef na lahum ñeel leen wa bi saddihim gàllankoor gi ñuy gàllankoor padd gi ñuy padd an sabilillah walis yoonu yàlla kaseen lu bëre bëri moo tax yàlla wa arzim jàpp gi ñu jàpp riba lekk euh, riba mooy garag yi euh, leble dërëm fayee ko dërëm ak genn lool euh, moo tax it yi ci àddina gi yëpp ñoom ñoo ko yore di ci def lu araam li moo tax crise mondiale gi du am solution ba ñu dellu ci alquran alquran li mu tere bu ko bàyyee du ñu am crise mondiale waaye crise mondiale gi fii ak dugguñ dellu si ci alquran duñ ko gis obe yàlla nee na waxat ci dëgg-dëgg nuhu tere weefoon na leen anu ca loolale wa aklihim ak lekk gi ñuy lekk am wàlla naasi alalu nit ñi bil baati ci ci neen ci ay loterie national ay PMI ay jak eh, jackpot TV xaw nañ koy tuddeeti yooyu yëpp ay xoos-xoos benn ci daganul waatal naa préparé nañ lil kaafir na ñeel yéeféer yi minum ci ñoo azabun buggal aliman gu métti laakin li am be nekk fi araasix wala ñi nga xam ne waaye samp lañu waaye am cër lañ fi elmi ci xam-xam ñi nga xam ne dañoo dañu dañoo dëgër ci xam-xam xam-xam bu set wecc la ñu euh, du xam-xamantu waaye xam-xam la ñu am ci ñoom wal mu'minuuna ak waaye gëm ñi ñoom da yu am ne danañu gëm bi ma ci lëf la nga xam ne unzila wàcce weef na ko ilayka jëm ci yow wa ma ak lëf la nga xam ne unzila wàcce weef na ko min qablika jëkk la wal muqiimina salaata ñiy taxawal julli yi wal muutuna zakaat ñuy joxe azaka yi wal mu'minu billaahi ñay gëm yàlla wal yawmil aaxir ak bésu àllaaxira ba ulaayka ñooñale sa nu utihim danañ leen dikkee xel si nañ leen dikkee ajaran pay aziman gu ngand ngand góogale inaa naka ñun dey aw xay naa juux nañu ilayka jëm ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam kama aw xay naa naka lañu juuxee woon ilaa nuuhin jëm ci yonent yàlla nuux moom la njëkk a yónni ci def leen bàyyi leen def leen lii baax na bàyyi leen lii bon na moom moom la yàlla njëkk a yónni ci loolale waaye am na yonent yi ko jiitu de aadama jiitu woon na ko idrisa jiitu woon na ko a jiitu woon na ko li ko jiitu ci ay yonent lu bari la lool waaye ñi ci alquran tudd mooy aadama ñi ci alquran tudd mooy idrisa ah dégg nañ ko ah wa nabiina ak yonent yi min baadi ñu dikk ca gannaawam wa awxay naa juuxoon nañ ilaa ibrahim juuxoon nañ jëm ci ibrahim wa ismail wa isxaaqa wa yaquuba wal asbaati ak sët ya wa isaa wa ayuba fàttalekul ayuba ayuba mooy kooku feebaroon ba saxe wa yunusa fàttaleen yunusa bun mata moom mu ngi dëkk ci dëkk bu ñu dee niin waa ci réewu iraq boo ñëwee bagdaad nga taxaw ci bagdaad nga jàkkaarloo fi jant bi bawoo eh, sa wàll gànnaar mooy yoon bi nga xam ne moom moo jëm karkuuk moo jëm tikrit balaa nga yegg mawsil da nga fi yegg dëkk bu ñu dee niin waa fa la fala bàmmeelam nekk moom yonte yàlla yunus wa haaruna fàttaleku leen yonte yàlla haaruna wa suleymaana wa daawuda waatey naa joxoon nañu daawuda zaburan yonte yàlla daawuda ku neexoon baat la buy jàng sa picc yi dañ doon déew di ko wër buy jàng mala yi daawuñu lekk buy jàng ndegment yi daawuñu mën a lekk ngir baata bu ndeex ba ndeysaan benn guddi jot na ci guddi yi Seydina Muhammad mi ngi toog ci biir jàkka ji mi ngi dékk benn baat bu neex di jóg ci alquran baat baa ngi jóg jëm asamaan yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam daal di sëgg bët yëpp daal di tooy dënn bi daal di tooy ndeke rongoñ la li mu dégg ci baatu yàlla bi ci làmmeñu keneen ah, mu yéem ko lool ndeke kan la mooy abu muusa al ashari de moom ci sufiyanke yi la bokkoon sufiyanke yi ñoom ñeenti yëpp abu lañu abu sufi abu abu muusa al ashari abu darda abu zaril xifaari abi hurayrata ñi boobale amuñu jabar amuñu doom ñoom ci jàkk ji rek lañu nekk buy bëccëg bu muhammad dem ñu fare ko gannaaw ñi fare ko kanam bu dee guddi la tam ñi fare ko gannaaw ñi fare ko kanam ngir sàmm kilifa kii bëgg na kilifaam ba bëgg a dee waaye kii bañ na kilifaay kii ba bëgg a dee moo tax buñ ne kenn ku nekk na rey sa noon ah sa xarit nga denc ko sa xarit noonu keneen la lu dégg nañ kàddu gi am na ñoo xam ne bëgg nañu nit kii ba ànduñoo seen sago am na ñoo xam ne dañoo bañ nit kii ba ànduñoo seen sago met dafa am ñu koy jiitu am aaya ga wallaahu ya'simuka minan naasi waa ji di jàng alquran ci xaaji guddi ga ndekk abi muusa al mu daal ko woolu mu ñëw mu ne ko laqad ajabat nii wallaahi yéem na ma lool qiraataka sa njàng gi yéem na ma lool yow de dafa mel ni baatu yonent yàlla daawuda ga moom lañ la may mu daal di ree ne ko wallaahi bu ma xamoon ne yëg nga ma wallaahi danaa gën a randamtal sama baat bi ah yàlla fay yàlla yaa rabbi law alimtu bi ka ah mu kon la xam boyaade sama kàddu gi naa ko boyaade dinaa ko gën a rafetal ngir sa xol gën a neex ci man hmm? te ci moom la ko yàlla wàcce woon kon leer na Alfayda FM yàlla nee na wa rusulan am na yonent yoo xam ne xasas naahum nettali nañu aleyka ci yow seeni mbir min qablu am na yonent yoo xam ne yàlla nettali na leen téeméeri junni yonent la ñu ah ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent ñi ñooy anbiya yi am na rusul yi mooy ñoom ñetti téeméer la ak fukk ak ñett ah anbiya ak rusul yi alquran nag ñaar fukki nit ak juróom la ci alquran tudd moo te yàlla rusulan am na yonent am na ci yonent yi ah, rusulan am na yonent yoo xam ne xat ci dëgg-dëgg xasas naahum nettali nañ seen mbir alayka ci yow min qablu wa rusulan am na yonent yoo xam ne lam naqsusum nettaliwuñu alayka ci yow seen mbir gis nga yonent yàlla ibrahim yonent yi ñu tudd ci alquran yëpp du ñaar fukki yonent yeeg juróom juróom yeeg ñoo bokkul ci ñoo bokkul ci biir njabootam ah ñi ci des ñépp ku mu jur ah ku koo jur ku koo jur moom daal ñi nga xam ne ñi nga xam ne juru leen wala ñi mu jur juruñ leen mooy aadama alayhi salaam mooy idrisa mooy nuux mooy saalix mooy luut mooy saalix mooy huut waaye moom ak luut dañoo bokk ah, ay doom yu bàyyi tëx lañ dañoo bokk ñoom waaye gi nga ñi ci des ñem nag ci yonent yàlla ibrahima la ñu génne alayhi salaam boo ne ibrahim amoon na juróom ñett doom am na ku ci doon madiana surtout madiana mooy yonent yàlla suwaybu Suaybu bun Nuayb ba tey boo ne Ibrahim moo jur Ismail mooy maamu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba boo ne Ibrahim moom moo jur Isxaaqa te Isxaaqa moo jur Ays kooku moo jur Zulkifli hmm? boo ne Ibrahim boobu nga ne Isxaaqa ah Isxaaqa Yaaqub Yaaqub moo Binyamin te Binyamin ci moom la bawoo mooy yonte yàlla Yunus bun Mata waaye ba tey Yaaqub moo yonte yàlla Yuusuf boo ne yaaqub ba moo jur laawee laawee ci njobootam la bokk waa ne ci njobootam mooy bàyyi yonte yàlla Muusa mooy ah waaye mooy bàyyi yonte ci moom la génn waaye Ilias ci moom la génn Ilias ñu ngi ko ci dëkk bu dee ba alabek ci réewu eh, Lubnaan Ibrahima bete moo jur Isxaaqa mu jur Yaaquba waaye moo jur ku ñu tuddee Yahuza Yahuza googale ci ay njabootam la bokk daawuda daawuda googale moom moo jur suleymaan suleymaan googale ci ci wàllam la boo yonte yàlla isa waaye moom suleymaan googale ci njobootam loo bokk yonte yàlla zakariya zakariya boobu moo jur yonte yàlla yahya alfayda